asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye di leen baal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames si kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag saa su nekk nag di feggoog sama doom sama xarit Fatou Bakala macha allah waaye tamit suñu inspecteur Ndoye Bane hmm. maa ngi lay nuyu di la ziar di la sargal fa tabarakallah macha allah di sargal waa Pire Saniokhor yëpp ci sa mm-hmm. jëmm ak ci sa tur. jaajëf bisimilah Ndoye Bane merci beaucoup tax dégg ngeen ñu ngi lay ziar di ziar waa kër gaak ñëpp. ak père baabu ñu ngi koy ziar bu baax a baax. mame ak maamam sama xarit boobu maa ngi koy ziar bu baax ak euh, <laughs> képp xam. waxuloog maama waxal mame ak AES. <laughs> di ziar ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan ak mm. euh, takk der yi comme ni nga koy waxee waa aéroport douanier ya gendarme yeeg policiers yi ñëpp ak waa sapour pompier ñu ngi leen di ziar ak mm-hmm. gardien vigile yi ci réew mi euh, di nuyu comme waa Pire xool comme ni nga koy waxee monsieur le maire seriñ Mboup ak sëñ Moustapha Cissé ak imam sëñ Moustapha Ka ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal ak les sénégalais de la diaspora mm. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax waa kër xaali Amar Fall <laughs> xam nga soo nuyoo sëñ Moustapha Ka rek ñoom ci ci foofu la ñuy la ñuy dem imaam ba macha allah mm-hmm. macha allah jërëjëf kontaan nañu lool macha allah di nuyu sa njaboot yëpp a ah, namm nañu euh, ñam bi buur soy mbax sooy mbax sooy waaw mbax sooy mbax sooy waaw waaw ah, xam nga dañu ci indiloon saaku ma mami ma mami saaku man saaku ñaam bi am na beneen tur de xamoo ko mbax sooy rek ah puloox waaw puloox puloox waaw puloox mooy ñaam bu mag mm-hmm. puloox xam naa ko bu baax mu ànd ak sax pulloox kontaan nañu bu baax a baax macha allah waaye xam nga ni doy baax euh. mbégte gu rëy nag laay toog ak sama jarbaat waaw bu yaru bi ah yaru lool macha allah macha allah macha allah ah di ko bégee fatumakàlla macha allah xam nga sama jarbaatu xol la nag uh-huh. ah fatumakàlla soxna Mami Diop maa ngi lay nuyu yow tamit lay fay la ziar yaayu Soda Mbacké maa lay sargal bu baax a baax a baax uh-huh. bismillah <laughs> jërëjëf Cheikhul Khadim sama yaakaar yi tey ak ëllëg a maam yàlla na mag neen son Mandela képp ma jaloore uh-huh. di ziar mboolem kilifa diine kilifa yi di ñaan yàlla yokk leen wér te euh, wéral seen i cër te guddal seenu fan di wax ne ñun Sénégal jàmm rek kay sunu mbokk kon yàlla nañu ko yàlla gën a yónnee ba mu gën fee wasaaroo yàlla musal nu te mosal nu di ziar nag euh, waa kër gi yëpp yaa booy di la ziar di ziar sama maam Camara ji bi Anta Boy ndoy ngi lay ziar sa yaay ak ma rek waa kër gi yëpp sama maam nag dañoo xuloo woon mais juboowaat nañ tey ci suba gi mm. ndax damaa seetaan xam naa ne Pape Cheikh daal. Mm. bu ma ko seetaanee. Mm. dina ma def musiba te loolu laay bañ. xam nga Pape Cheikh jubul. Mm, te temps sama Baye Cheikh ñu xolli la kenn du tax. tax na suuf bu yàgg yaa yëgul li xew zone moo tax suuf xam nga boobu kenn mënu ko xam ne ñëpp bëgg nañ ko jur. ah sama Baye Cheikh macha allah dinaa la ci wax ba ko ca xam nga lu la musa wax rek da nga yaakaaroon damay mbalak. déet sama Baye Cheikh macha allah. Ah. ay kon doo ma addina bi yëpp Baye Cheikh la bëgg jur waaw baax na mm, mm, jëlal mm. man day sama rakk la woon waaye may naa la sama wàll xam nga bëgg yàlla yàlla bëgg la moo gën a wóor <laughs> yàlla na yàlla daf cat ci bàyyi si <laughs> amin amin amin sama rakk ju baax jooju jàllu jéeri fonk na ma loolu te yëg ma maa ngi koy ziar di nuyu nag euh, waa Sénégal gépp di nuyu sama yaay Ndeye Yacine Gueye di wax ne heure bi dem ma nga woon ca France waaye tey heure bi tey mi ngi jëm Belgique di nuyu ñamu jógee ak ñamu jëm ñëpp te di leen ziar bismillah yaa booy dañuy euh, toogaat rek àndaat ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziarat kilifa diina yi di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñuy àndaat ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci télévision Futurs Médias seetu askan wi ziar kilifa aada yi ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yal nañu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu ñu ci defal rek yàlla nañ ko muurloo ci barke alquran al karim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 àndaat ak yéen ba tey suñu génnee ci hôpitaux yi nag dugg ci prison yi nee naa leen béréb yooyu nañ ci bàyyi xel ñu baax lool lool lool ñu ngi ci prison yi ñu safaanoo nga fa waaye mhm. ànd ak lu ci mën a ne mhm. sañ nañu nag ñun ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege natt du kenn yal na leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ngeen mhm. dellu ci seen biir njaboot te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alxuraan al saa yu ñu toogee tamit liñ ci nam rek mooy jàlle képp koo xam ne jamono ji ñu toog di waxtaan mel ni fekkee nañu mel ni tal nañu ñoom ñu ngi ci tiis nekk ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër di jaalewaat bu baax a baax a baax soxna Ngoné Ngom journaliste fii ci télévision Futur Média way juróom bu góor bi génn àddina ñuy ànd ak moom ci naqar wi waaye santati bu wér a wér sant woo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ñuy ànd ak yéen ba tey xam ngeen ni nag seen émission bi di wareef ay thème la daanaka ñaari ayu yoo xam ne ñu ngi yëkkati thème boo xam ne dafa jëm ci jàngalekat yi ak seeni élève mu nekk lu metti loo xamante nag ñu ngi koy yëkkati neexuñu sax naam ndax jàngalekat suñ ko daan tuddal rek éducateur da daan yar gàgganti la yow mii wéy jógu sàggan wa sax waaye suñ demee ba nga xamante ne école yi ak fa ñu koy waxee fa tabakalla macha allah relation jàngalekat maanaam professeur bi ak ki nga xam ne moom lay jàngal di élève bi xajam lool xajam yoo xam ne ay laafu ganaar la junj doy na boroom xel. Mhm. ñu dem ba nga xam ne ñu xemmeem suñuy doom. ñu dem ba nga xam ne tamit suñuy doom di xemmeem seeni professeur dëgg dañ nga koy ñeme. Mhm. xale yi tamit la macha allah léeg-léeg nga gis ci kenn ñu ne dëgg-dëgg wax leen ci xale yi ñu wax ci col gi wax ci fit gi wax ci yoon yi nga xam ne xale yi bëgg nañ koo jël ci loo xam ne kenn xamul dañ ko jéggaani kenn xamul lan la te léeg-léeg nga gis ci garmi boo xam ne day yeer ba mu baax waaye xale bi su génnee rek nekk ci beneen milieu kon xanaa kon kër yee feebar nga xam ne thème bi suñu ko yëkkatee fokk ñu am fu ñu déparé mooy ci kër yi ndax xale boobu ci kër la jóge waaye jàngalekat boobu nag ci kër la jóge ñu dem ba nga xam ne daal ah nañu ma jéggal de ak niñ ko sañ a wax ak niñ koy déggee ak jéggalu gu mat sëkk waaye ëmbal ñu ngi naan jàngalekat ëmbal na kii mhm. du jeex du jeex bul sori bul dem ba Kolda sax taxawal fii rek ci Ndakaaru jaay ñu dem ba nga xamante ne ay auberge jàngalekat ak élève ñu nekk ca ñu dem ba nga xam ne chantage boo xamante ne élève ba soo deful nii soo ma joxul sa bopp dinaa yàq sa euh, euh, sa sa sa année scolaire mu dem ba nga xam ne xale yi ci am fulla sax ñoom dañ leen dénoncé wala ñu toog waaye mu am ci ñenn ñoo xam ne dañ ko nangu ndax jàpp nañu ne jàngalekat bi soo ko joxee sa bopp amaana moo lay jox not yu baax yi ñu dem ba nga xam ne góor ñi sax ñoom seen jëm bopp dem nañu ba ne ñoom dañuy dindi seen i tur def ci euh, tur bu ci nekk ndey tudd Amadou ne Ndeye Amadou loolu yëpp ndax mm-hmm. jàpp nañu ne foog nga nekk jigéen pour ñu bind la ay notes yu baax waa ani ñàng mi ani valeur bi école bi feebar ñàng mi feebar xeetu jàngalekat yu bees yi ñëw feebar mm-hmm. suñuy doom it feebar seen yaay feebar seen papa feebar kon xanaa kon ndëpp la laaj mami mm-hmm. ñu war a taxaw waxtaan ci suñu biir ci numéro yi ngeen xam ne miin ngeen ko di 88 628 22 22 sooy wootee ci réew mi

sooy wootee bitim réew sooy wootee Espagne sooy wootee Paris ngeen xamal leen ni tamit ñu ngi ba ca ba tey di waajal tabaski bi mhm. ku wootee rek ñu may la juróomi junni yooyu yëpp nag waaye nag euh, euh, na ngeen xam ne daal fatubakalla macha allah groupe Futurs média jàppale leen moo ko tax a jug ndax moo di seetu askan wi kon mi loo indi tey waaw xanaa li ñu indi tey mooy dañuy dellu si waat fa ñu nekkoon bërki demb mhm. ndax xam nga fàttali dafay xaw a baax léeg-léeg ci yenn yi dëgg la xam nga dañ fi indi woon quinze sañoo ko mhm. xay na am na ñu ko déggul woon xëy na am nañu ko déggoon yaakaar ne sañ nañ ko mhm. ñu di leen fàttali ne leen ba léegi loolu moom askan wi moo leen ne sañuñu ko mais ci biir sañuñu ko yooyu daf ci am yu gone yi moom am yu mag yi moom kon nañ ko déglu ku nekk jël ci sa bos bopp koy rab waaw ndooy ndooye ngi ñëw kon ndooy day daaneel ndooy yow yaay wax ndooy monante sañoo ko waaw te sañoo ko wala sañuñu ko sañuñu ko rek bu la ci neex ayca ayca dóor sañuñu ko xas sañuñu ko gëdd sañuñu ko xool sañuñu ko mer sañuñu ko kaf sañuñu ko wéet sañuñu ko sañuñu koo seeti sañuñu ko yëddu sañuñu ko bëgg sañuñu ko tere sañuñu ko sàmm sañuñu ko rond sañuñu ko ànd ànd woo élève bi su ko maître bi dee rond bi des na de sànni ñu ko waaw daf dafa soj comprendre naa xam nga maître bi su dee rond élève bi mhm. élève bi dina ne su ma jaaree fii taseeg maître bi mhm. kon naa daw dem ñibbi mhm. ñu wan ko ne ko sañu ko su ko dee yëddu dina dégg la muy wax xëy na loo xamante ne waxwul mu dindi ko ca ñu wan ko ne ko sañoo ko sañu ko seeti nag moom élève bi na ko xam kon su waaxoo ba seeti ko këram dama ne nit ki nag su waaxoo ba fekk lu ca biirum kaafam lu ko fa def na ko neex kon ñu yóbbu devoir yi ca kër ga sañuñu ko demal demal sañu ñoo bëgg mhm. prof bi sañul bëgg élève am mhm. ci biir école bi mhm. suñu génnee école bi ba jàngalatu ko nag li nekk ci xol ba di ko dis bu nekkoon ci oom borom du jóg taxaw parent bi ak adduna bi wan la ko ne sañoo koo tere ki nga war a jox xam-xam nag war nga koo sañ tere war nga koo saña digal ñu wan la ne la saroo koo tere ñu wan la ne la sañoo koo sàmm gone ku ko yor sàmm ko ndax ndawalu bormoon la lu mu duuf duuf ra tax ñu ne la waroo koo euh, waroo wéet ak moom dëgg la mm. waruñu weet ñoom ñaar mm. ndax xam nga lu tax mm. lii taal géej gu ne faa nga comme ndoxam du fa bàyyi sayum bopp bu ànd ak almet mm-hmm. ndax ñaar ñoom ñaar bu ñu weetee am na leneen lu fa mën a jolli mm-hmm. kon wéetaay waru fa mm-hmm. na leen wóor ñoom ñaar ñëpp ba ñuy sorente sañoo ko xas aussi wala ñuy wéttali ko waa xam nga ñoom seen wéetaay sax day ñun ñoo koy tuddee wéetaay ndax ñoo jàpp ne ñoom ñaar a wéet waaye nañ bu yàgg ndax nag xam nga kii wër ku ko gunge ku ko wéttalee kii war fa mu fanaan yaakaar naa ne ñoddi rek talaf moom waru leen a mën a boole mais taa diggante nag fi mu bëgg a ubbi tey mooy gone yi nañu dalaat xam ne li may wax ndoy baan chaque jour mal la mal la joo gis ju nekk mu tey ndayam euh, carrière jigéen dafa gaaw te gàtt dëgg la diggante jànq bi la jeeg bi mère bi mhm. diggante boobu am na lu fi nit di def loo xamante ne dina dem ba nit ki dafa dul mën a natt ëllëgam mhm. te ëllëg du añju reer mais lu mat a sédd mhm. am na lu nit di def ci ndawam su ko wóor ne dayoob ëllëgam fii lay tool du ko def ci ndawam nañu sàmmaat seen bopp bu baax nañu xoolaat seen bopp bu baax mhm. mën nga am nekk ci école di fa jàng mhm. nekkee fa nu la neex mhm. ku nekk nga ànd ak ko carax ci di wax ñuy dindi nga tegal nag sa bopp xas xam ne daal ak mag dafa gaaw te ku dukku dukki sag ndaw faaw nga yommu yommi sag mag loolu na ko gone yi sóoraale waaw dégg ngeen waaw rafet na li mu wax euh, rafet na euh, dama bëgg bëgg rek ñu taxaw tamit daal di rendre hommage jiggu enseignants yi nga xam ne nag. Mhm. ay enseignants yu baax lañu. waay waay genre monsieur Anne rek waaw ex ay exemple Ndiaye cm ñi wax ne école boo dem rek am na ci ñoo xam ne mhm. vraiment. Mhm. ak madame ah, Wade. Ah, euh, élèves yi sax dañ leen di bëgg seen cours ñëppay ñëw parce que dañuy jàngale normal duñu xool xale yi seen i doom lañ leen ñooñu moom vraiment chapeau te ñi ngi seetaan nag émission bi mais ñi tax ñiy wax mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy ñooy li naan ñiy gàmmoog ñii raas déem mhm, raaskatu déem yi nag mhm. la ñuy la ñuy waxal mhm, te dañoo dañoo bari nag ci koor yëpp la ñu nekk waaye tey ci enseignants yi ci ñoom la ñu nekk ci koor yëpp la nekk waaye tey nag ñu ngi ci ci enseignants yi euh, taa dégg démb euh, nee naa la euh, doon naa la junni ni ni la soo demee ci ci ci région yi fa la fa gën a takkarnaase mais mais mi ngi fépp ci ci ci ci dëkk bi enseignants yi dañuy dañuy dañuy dem suñ demee ci benn fu mel ni euh, Kolda wala Vélingara mhm. dañuy luwe benn kër dëkk fa ñoom ñëpp mhm. cër ba leen waa dëkk bay jox mhm. su dee dañ faa tabaskee daa soo moytuwul dañ leen di mayi xar am na ci ñoo xam dañuy dem ba am fay ba am fa terrain tabax ko ak i tool tool am na ci ay enseignants yoo xam ni dañuy dañ juuba tax sax su nu gisee benn élève boo xam dañ koo bëgg ci école bi bëgg ko dëggantaan bëgg ko soxna jaral na leen ñu ñaan affectation pour sori xale bi mm-hmm. di di labatante à distance mm-hmm. ba sëy am ca parce que am na ñu ñu ciy sëy mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne seen kër yooyu ñu luwe mm. fa la ñuy jël naan xale yi naan fa la ñuy defee cours du soir foofu lañ leen di labate mm. foofu lañ leen di def lañ leen di def mm. te seen papa du yëg seen yaay du yëg parce que li tax papa du yëg yaay du yëg papa jeeg yaay ji dañuy respecter enseignant bi wóolu ko nag woolu ko waaye yow de sa sa gone gaa nga kër ga de mm-hmm, mm-hmm. mbaa yaa ngi koy surveiller sa jànq ba mm-hmm. mbaa mi ngi góorgóorlu nga ne waaw mi ngi góorgóorlu ndekete yow yaa ndekete yaa ngi yaa yaa ngi ci kawam te li ci gën a metti dam na ci enseignant yoo xam ne dañ lay ëmbal a pare bañ li tax ñuy bañ enseignant bi da ko leer ni moom ba mu paree ci yow dalaa paas beneen xaritu enseignant am dañuy dañuy dañuy paasante xale yi pare passé la profu mat ba mhm. jóge ca profu mat ba dem ca a anglais ba mhm. yow xale bu jigéen bi xamul ni yow xamoo ni gars yi dañ lay paasante mhm. gaa yi gaa yi dañ lay paas mhm. soo ëmbee nag boo ko jiiñ ka nga xam ne moom nga bëgg ka nga mhm. xam ne moom nga am yaakaar mhm. kooku day bañ ëmbal yi ngay dégg ci dëkk bi yëpp nit ñi ni naan moom de waa dafa bañ ñi ko topp doom tudd ngénte nañ ko te amul papa yooyu problème yu mel la ko la ndaw a a yi nga xam bi wala ministère bi di teg doo laajal ministre ministre maa ngi wax naa ak moom ak ñuy rajee waa à vie ma booleeg euh, directrice ressources humaines bi. Mhm. Khady Ndiaye la tudd. xam naa mhm. dinaa ko woo sama génnee. doon na baax. waaw am euh, ministre bi. waaw Khady nga euh, Ndoye Bane dogguma mhm. la waaye bu la dara doon. man bàyyi naa fiir man fiiratuma. <laughs> déet dama lay wax fiiratu da ngay feebar déet démb lañ ma faj. man daal dafa am suñu benn doom boo xamante ne nekk daf ma woo. donc bi mu woowee xam naa ne mënuma jot mu SMS ma ne ma dafa bëgg témoin. ah ma daal ko woo. bi ma ko woowee mu ne ma waaw man euh, maa ngi nekk tel établissement. Mhm. Euh, première laay def waaye man suñu benn euh, professeur bu may génnal depuis bi ma nekkee cinquième. cinquième mhm. ëmbal na ma ñetti yoon. ëmbal na ma ñett yoon. waaw nee na depuis nee na bi mu bi mu nekkee cinquième. waaw la ko par exemple prof bi ci misaal nekk prof mat wala dara. yaa ngi dégg baax li ma mhm. nee na ci établissement boobu ci lañ commencé génn cinquième luy topp cinquième quatrième waaw quatrième luy topp du troisième troisième seconde mhm. seconde premier xanaa du muy ñeenti mhm. xale bi nee professeur bi ëmbal na ko ñeenti yoon ma ne kii xam naa daf ma bëgg cardiaque <laughs> est-ce que yónniwuñu ko ci man waaw yaa ngi dégg xam ne kii dañ ko da ko yàq xale ma wax ci téléphone bi mu ne ma ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko waaw léegi ëmbal ñeenti yoon boobu waa léegi après mu ne waaye yëpp daf ko yóbbu ñu yà ñu ñu ñu yàq ko. Mhm. ma ne ko dañ ko yóbbu ñu yàq ko mu ne waaw. pour te dire que traumatisme bi nga xamante ne ne que man xale boo wax na expliqué ma ma ne ko waa lii yëpp yow yow soo commencé cinquième cinquième ban âge nga amoon. Mhm. léegi première ban âge nga am. kon professeur ba ba muy commencé ak yow daanaka da nga génn CM2 rek mu commencé ak ci diggante bi ëmbal na fi ñetti yoon yàqu ko. waa léegi dama la bëgg laaj yow loo ci lan lan nga ci jublu mu na ma su fekkee damay wax dëgg te yàlla tax man dama ko nopp dama ko bëgg bi ma koy bëgg xale laa dama ko bëgg dama ko bëgg ma ne ko mu ne professeur ba am na jabar professeur ba am na ay doom cinquième ba CM2 ma nga xale ba ëmbal ko ñetti yoon cinquième ba seconde waaw premier ba premier léegi nag man dama bëgg xale bi nag moo ma faj ndax man nekk naa naqar ba muy wax ñaq naa toog naa ñammi ñammi naa def yu kenn xamul di waxtaan ak moom xam nga te yi tamit xam naa ne ne euh, euh, ku ko jàppale ku ko jàppale xam nga njëlbeen amul solo mm-hmm. xam nga ndax nit ki li ci ginnaawam tuub tuub bu dëggu rek mm-hmm. ah, xam naa ni ku ko jàppale alaa xëy na dina ci génn parce que su demee ba mu jagal ko ba lii nii parce que thème bi ñu ngi koy déglu mhm. waaye man sama jëm bopp bi ma dégloo xale bi ba euh, wanaat sama lépp wanaasu sama naqar wanaasu diw ci diw ci kii dégg nga ah wanaasu ko bu baax a baax parce que j'ai maal j'ai mal <laughs> li ma la wax mhm. ma daal di toog ma ne léegi xam naa nu may def léegi fiiratuma mhm. parce que xale yi dañ lay rey doggali la léegi nag fu mu ne ni fiiratuma man daal démb mame bii laa yor mhm. boo xamante ne ne ndoy non su fekkee mi ngi Dakar kay après man fu mu nekk rek mën naa ko faa fekk mën naa ko faa waxtaan ak moom parce que xam naa téléphone la woon te am na leneen lu mu denc lu mu waxu yàq ga nañ def procédure yi na mu def ba yàq ko fañ ko yo yóbbu affaire mhm. yooyu yooyu yëpp su ko waxee ak ñaata la fay professeur bi na fan la ko daan fekk këram wala auberge jabaram ndax mi ngi fii professeur ndax Sénégal euh, Dakar Dakar la dëkk yooyu yëpp. ak établissement bi mu jàngee naka la ko professeur bi abordé. ndax moo koy abordé ñu. lu lu tax li ko livre. ndax ak yaa ngi gaañ ak sa dënn bi nag. ak avancement bi cinquième. quatre cinquième quatrième troisième ba yooyu yëpp est-ce que da ko ci doon may ay not ba tax mu lu ko tax a yegg. Ah, man daal man daal xale ba xale ba daal xam naa ne ne moom. Uh-huh. moom nee na ma ne dafa nopp professeur. waaw da koo nopp nee na. Uh-huh. daf koo nopp. Uh-huh. xam nga moo tax sànq soo gisee léeg ñuy bëgg jàll ma ne la non nañu taxaw tuuti parce que ki nga xamante ne da nga am ascendance ci moom uh-huh. ki nga xam ne mineur la kooku ba léegi dëgg la xale yi wow nañu bët mais dama dul nangu responsabilité ñu koy teg xale yi uh-huh. parce que yow dañ la sàmm loo uh-huh. parce que yow dañ la éduqué loo indi la jàppal la ñu jàpp ne tàggat nañ la ah comme docteur yi wala kenn pour ko nga ñëw faj pour que nga ñëw defar muy responsabilité bu réer loolu loolu déli la nga ñëw nag nga ñëw nag yow tàggatoo waaye yàq caxat-caxatee ah xale yi fu mu nekk nii gis nga suñ daan def suñ suñ doon def visite euh, médicale ci école yi ak yooyu bu ñu su ñu commencé sixième cinq rek kese yaay dinañ xam ne ñoom ñëpp naa seen seen yaakaar tas loolu détournement de mineur la waaye ma ne yow yow professeur yooyu yow yow yow wala enseignant yooyu ay ay ëpp na ko li ñuy def détournement de mineur loolu déli la yeneen déli loolu boobu dafa am yeneen déli foog ñu laajte ko xam nga Ndoye Bane dafay waxtaa mu ne ndax daf ko doon noteel wala déet mais quatre ans nga ëmb ci ñett yoon jigul sax jeeg buy sëy merci mm. boo ko defee sax sab sëy rëng-rëng merci ndax nag mm. bakkan jàmm la bëgg su ma am ak jàmm yaa da ngay mais dañu sotteeku waaw waaw xam nga dama la wax fii barki dem ne xale yi boo leen seetloo ak ñi ma ko ci sañ a wax ñëpp comme ruy bu dog mm-hmm. nga di ma reetaan xale yi comme ruy bu dog mm-hmm. parce que araw li ñu waroon a laax moom la ñu ruy ñoom ci bi ñuy ndaw xam nga kooku doo xam ci yan condition la waa ji doon mm-hmm. yàqee ëmb bi mm-hmm. xamoo ndax la ca war a topp ci faju topp na ceem déet mais xam nga ne jooju nday na ma baal ak nday jama ko sañ a wax moo sàggan mm-hmm. ndax yaakaar naa ne mag mu avorté ci biir këram sax ñi mu dëkkal dinañ xam ne kii am na lu koy metti waxuma laa nag gone guñ yàq ëmbam ñetti yoon nga nekk ak moom ci biir kër gi te yow mi ndayam mënoo rendre compte ci dara kon nag nday ja itam am na ca part taa dégg gis nga dang dang yi ci kër gi rek dëkk bi dëkk bi liñ fi dëkk bi liñ fi wax da war a wax dafa bari enseignants yi ñi ngi ci kaw xale yi mm-hmm. xale yi teg actuellement nii ak yëf yu bees yi nekk ci dëkk bi dañu muus mm-hmm. ñi ci muus dëggantaan du ñu ëmb xam nañ fu ñu yàq biir mm-hmm. xam nañ yan doom la ñuy naan pour yàq biir te def xaaj quatre-vingt pour cent élèves yi dañuy def planning soo demee ci bërëb yi ñuy defee planning ñoo fa fees dell mm-hmm. Mm-hmm. man maa ngi doon xaar jour bi ñuy def jour bi ñuy def émission ci planning mm-hmm. d'accord mais nañ xool su fekkee da ngay def planning ñu laaj la certificat de mariage kuy sa jëkkër nga indi kayitu leer ñu defal la planning waaye doo ñëw gis élève boo xam ne leer na leen kii quinze ans la am leer na leen kii di ans la am nga yow indi saagam ñëw taxaw nga defal ko planning. non léegi mooy demal yàqu ji léegi programme yu bees yi loolu programme yu bees yi tëraluñu woon parce que dem nañu comme xëy ñii xam ne euh, sëy nii sewul nii xam naa ni nekk que programme yu bees yi nga xam ne gouvernement yu bëri institué wuñ ko mooy fexe ba nga xam xale yi sax duñ ci jëlee ay sida ak ay ak ay yàqu yu répétitif loolu yooyu ay programme gouvernementaux yoo xam ne. Mhm. ak ay yeneen organisme kon xam nañ ni xale yi bon nañ ba pare. ah doy na waar waaye ah. xam naa daal ñu nga leen di fagarul. Mhm. loo xamante ne daal xëy na Euh, ngaañ bi gën a gën a gën a gën a gën a gën a moins violent toujours est-il que uh-huh. nee naa la il faut que ñuy def aussi ay tests euh, psychologique uh-huh. ci jenn jàngalekat yi uh-huh. parce que xam nga lu tax c'est pas normal gis nga bërki démb rek ñu ngi ne ñu ngi ne jàpp nañu ay professeur fraudeur lu suñu domaine waaye man fa ñuy fraudé ci élèves yi loolu lañu war nañ ko gëstu parce que kenn koo xam ne testé woo ko waxoon naa la pédophile la kenn koo xam ne day crise kenn koo xam ne xel mi wayul mm. kenn koo xam ne xëy na soo ko gëstoo seen village ba mu jógee mm. ah xëy na euh, la maire nañ ma jéggal bu baax yéen maire daan wax yekkataan mm. jéem na fa yekkataan cousine am yëpp doog a doog a doog am bac mm-hmm. xam nga ñooñu aussi doon na baax ñu xam seen profil psychologique balaa ñu leen di yóbbu ci xale yi am na ñoo xam ne jàngale am na ñeen ñoo xam ne xam nga lu tax ñu bëgg jàngale pour pour Uh-huh. ñoom do ba nga xam ne ñëwuñu ko parce que dañu bëgg métier bi waaye jàpp nañu ne dafa am ay ay ay xale ngi loolu la ñu woon seen seen cosaan noonu uh-huh. doy baat donc loolu noonu uh-huh. ko war a gëstu war ko xam am na ñeen yoo xam ne soo interroger seen mbokk suñu ne jàngale ñu ne ko ne xale yi dee nañu parce que tund yi mu dëkk yëpp yekkataan na fi ba pay doog a dëkk xam nga d'accord euh, yekkataankat yooyu moom moom moom moom ñi ngi fépp mais gis nga ñu professeurs yi wala enseignants yiy def loolu noonu dara jotu leen feebaruñu dara jotu jotu leen gis nga li naan euh, euh, yére yére vive hmm. moom waaw hmm. waaw loolu dafa wara a dafa jeune dafa war jaar ci loolu. kon ay yee waaw da non war a jeune danga nga war a fo. maanaam nga nekk jeune. Ah, xam nga di am gel mais enseignant enseignant yi am na ci ñoo xam ni. seen seen li ñuy mécc seen métier li ñuy utiliser pour mën a am gel. jëlal jëlal ko ci ligne su lu woon li ñuy jàngale duñu am gel. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. ku baax ki maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi dolli ziar na kii tey. noo tudd ak fooy wote waaw man maa ngi wote Dakar quoi place de l'indépendance. ah naka waa place de l'indépendance. waaye ñëpp ngi fi di leen déglu rek. di kontaan ci émission bi mbaa xale yëpp école bi moom tabarkal la rek. waaw sant yàlla bu wér a a wér. sant yàlla bismillah yow la ñuy déglu ci thème bi. waaw mais man dama bëgg a participer ci émission rek la ñuy déglu ku baax waaw parce que man dafa am sama benn sama euh, sama benn kii. Mhm. suñu suñu benn secondo. Mhm. mais man dama si jaaxal seen doom terminal la ba joxe dépense. terminal ah. di joxe dépense. waaw su ko jigéen de. Mhm. te moom mooy régler dépense mooy ñëw saa bu xëyee dem dépense dem di joxe ay dépense koo xamante si jigéen la. te responsable la. te olof dafa am lu mu dafa ni yàkkamtee toog mu tax a toog kaw suñu loolu di ko jënd ay laytaay. wallaahi la si yaa ngi parce que man loolu dafa ma am pour jaaxal quoi man parents yi man waxuma si kii mel yi laa si wax parce que yi ñoo am responsable ëllëg suñu borom dina la ko laaj. dëgg la waaw maanaam naan ku mu tax a naan politique loolu loolu loolu la ubbeel nga ruus. dëgg la. waaw yéen a may dégg. Mm. baax a baax yow rek la ñuy dégg parce que man parents yi rek lu ma la laay laay laay laay si si responsable. Mm-hmm. kese du ñoom kese ko nan nan xale nan sàmm xale yi mm-hmm. am na loo xamante ni fii jaru ko àdduna bi jaru ko imagine koo xam ne sa doom bu jigéen terminal dafa sa doom jigéen ba faam terminal lay def ba pare jékki-jékki ah di di di indi ay di la jox ay dépense man loolu dafa ma ko ñaalu trop. Hmm. xam nga hmm. yaa ngi dégg ah. Uh-huh. waaw man daal loolu laay déglu quoi. dépense man ñoo ma rajo yaa sama yaay benn ngeen ko waa. ku baax ki waaw yaa sama yaay benn ngeen ko waa. yow léegi yaay sama doom bàyyi seex nangu na. <laughs> billaay wallaay. ndeysaan noo tudd. man maa ngi loo Dutloo. waaw Dutloo léegi nag dinaa wax bàyyi seex am naa am na rek wala mag bu tudd Dutloo. waaw waaw. waa jeex na an sa yaay. sama yaay moom ndeysaan yàlla dafa def mu génn àdduna ko waa ndeysaan léegi léegi jël ma waaw waaw waaw léegi jël ma léegi nañ la jox sama numéro suuf dégg nga duudu waaw nañ la jox sama numéro su mu yaa joxal ma ko sama numéro sama doom boobu uh-huh. day sa na sa yaay xippee ci àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waale sama benn yaay Adja uh-huh. Fan Bintu Meng ci uh-huh. HLM 5 yaayu na fi wàdd kooku tamit di mag mu baax gis nga li mu wax nii bëri na fi de <laughs> xale yu joxe dépense te di jàng. ak di fay facture ak ak di fay facture yow da gis yow nga nekk se uh-huh. yaa ngi dégg baax na. Uh-huh. di jàngee di ñëw ñu la jox paas. Uh-huh. ñu la jox ndékki xamuñu ndax añ nga yow yaay joxe dépense ba fay facture bi su ñëwee da ngay gis dañuy ñëw fekk la fi nga tëdd wala kii tegal la ko sa papa. dañu bàyyi yaay yi y a des papas qui sont responsables et irresponsables sous prétexte que munuma munuma gis nga doo toog naan munuma munuma damay chômer damay chômer ba say doom nga janjax leen ci mbedd bi te daf fi bëri am na fi ay papa yoo xamante ne pour ñoom seen doom ju jigéen suñ taxawee dañuy jooytu munuma ko oola di la def ba pare psychologiquement sax dañuy déstabiliser xale yi oo ko ba mu ñëw waaw waaw xam nga ni ne ba may mën nangam dimbaleel sa papa yaay xam débrouiller débrouiller loo ndey débrouiller loo doom débrouiller loo caat dëkk baa ngi toj te lépp Dakar la xewee. waaw ah, Dakar la xew si système D bi ma la doon wax waxtaan yee passé. Mm. newoon naa la autoroute à péage bi baax na trop. Mm. te ñëpp la arrangé. Mm. mais sooy nga génn fi Dakar dem toj dëkk bi ñëwaat wala nga jógee jógee jógee Thiès ñëw dakaar toj dakaar euh, ñibbiwaat. Mhm. yaay du yëg baay du yëg. Mhm. lool te li ci gën a garaaw bii papa ak yaay dañuy yëg. Mhm. papa ji doon benn paa boo xam dafa toog ci ruq ba rek. xam na li xew ci kër gi yëpp. mais yaay la ñuy yor yu màgget yooyu mais li gars yi li xale yi jigéen jeeg di wax naan sama sama borom kër fii laa ko fas. foofu lañ ko fas mu toog ci pliaan ba rek. lépp mi ngi koy xam. mais yaay ji ci boppam. moo xam ne lépp lu doomam nekk gis nga maire yi ñoom ñi ngi seetaan émission bi lu seen doom yi nekkee xam nañ mm-hmm. ku ci sa doom di tërërëri xam nga ko mm-hmm. ku sa doom tërëriwul xaw euh, xam nga ko mm-hmm. dégg nga am na ci ñoo xam ne bu njëkkoon dama doon gis maire yoo xam ne da nga daan gis suñu la gisee nga def benn geste bu ndaw ñu jël kaani def ko ci sa biir silib waaw maire dañ ko daan def mais loolu léegi da nga koo gisate li naan siif siif mi ngi am ba léegi gone yee yuuxootul siif mi ngi am ba léegi mm-hmm. gars yi ñu ngi leen di siif mm-hmm. mais bala bala ñu leen a siif mm-hmm. ñun la ñun la ñu bàyyi la nga def la nga la nga def ci biir classe lañ koy def wax naa la keroog foos yi ba duus yi ci nekk ci ci ci biir toilette ay ay préservatif mm. ay préservatif ñooy nekk ñooy école bu bu toile ay toilette tam baax fii da nga koo gis. Mm-hmm, mm-hmm. ay xale nañ ma ko. waaw ay ay ay préservatif la ñuy la ñuy sànni mm-hmm. foofu. ou bien nee na feetu fin de feetu xaw ma lan. fu seen fosco yooyu noonu. fosco yi da ngay jéggi préservatif yi. fosco yi su jeexee su fekkee samedi la dimanche nga xëy dem fa. laaj ko laajal ñuy nettoyer école yi. loolu rek lañ fay gis. Ah, surtout école yi nga xam ne ay étage la ay étage ñoom seen. ou bien soirée bi di daw nga dugg ci biir classe yi yow inoon demoo defoo dara lu dul vérifier. di vérifier man def naa ko ci benn école bu nekk fii fës koo am fa mm-hmm. ma fekk ma waroon a def thème bu mel nii ci mhm. rajo bi mhm. ma dem ca Fosco ba da nga dem ca toilette ya waaw non dew ma ci toilette bi la ma doon wër ci saali duggoo ci duus yi mhm. mais egg parce nga ci enquêteur lay dugg si mais su soirée bi jeexee nga dem ci duus yi mais instant bi soirée bi am soirée bi ci benn su fekkee école bi lañ ko def ci benn saal lay am rek mais demal ci yeneen saal yi xam nga yeneen saal lañ ko day kenn du fa nekk yenn salle de classe yi waaw xam nga su fa table yëngoo rek day aw di nga xam ne fii am nañu fi ne xale ba ne na ceinture rek comprendre nga mais gis nga parent yi ay responsable lañ ci enseignants yi bal ngi ñoom ci boppam nañ xam ni xale yi ñuy jàngal président wu ëllëg a ngi ci mhm. gendarme a ngi ci juge ngi ci ñëpp a ngi ci te ñooñu ay jàngalekatu suba ñi ngi ci te ñooñu mën na nañoo dem ba yor soo doom. seen sœur ngi ci seen. yaay seen mais ñooñu jigéen sœur la yaay a ngi ci. waaw mais ñooñu nag ñooy dem ba nekk jàngalekat. di jàngal sa doom soo fekkee yow ah, professeur nga wala enseignant yow tëddee gone yi rek nga nekk ci école bi. yow mais Ndoye Bane. waaw dañu génn ci lycée yi tuuti ma mi delluwaat ci primaire. Mhm. école primaire. <laughs> waaye yow ma ne yow est-ce que imagine nga fooy déggee ay xale yoo xamante ne CM2 ëmbal na xale ba ne CM2 ëmbal na xale ba am CM1 léegi dañ dem ba nga xamante ne taux ëmbal bi dafa gën a bese te malheureusement am na ba léegi ay tund yoo xam ne kenn da leen dénoncé. Mhm. parce que day ëmb rek ñu commencé mën a dama koy takk. mais pédophile lañu ah mariage précoce. Mhm. yooyu yëpp daf koy fa parce que tout simplement dinañu suñu feeñee suñu feeñee parce que mën nañ fa dem ba keroog ba seen affectation jeex duñu feeñ waaye seen feeñ su su kiiwee rek ba xale bi ëmb pare ñu ne dama koy takk nga gis xale boo xam ne 10 ans 11 ans mu taxaw ne dama koy takk mais kooku balaa ñu mu doon takk xale bi dañ ko woon pendre. mariage précoce pendre pendre est-ce nga pendre. pendre waaw waaw loolu mariage précoce la. Mhm. loi bi da koy tere. détournement de mineur la. def ci grossesse loi bi da koy tere. Mhm. gros grossesse précoce la. def ci sexualité précoce. waaw loolu lépp loi bi da koy tere li mu def lépp. Mhm. ndax ci dolli xale bi suy am doom mën na cee ñàkk bakkanam ndax mhm. xale la. moom it jëlee ki ci ligne bi. allo. ku baax ki maa ngi lay ziar. waaw. ana sama yaa dégg. yaa dégg na ngi nii toog maa ngi lay ziar. yaa dégg na def ana Ndoye Bane. waaw eh, soxna si def sama alhamdulilah. man maa woote woon àllarba. waaw. te numéro bi mi yaa mujj ko jël fan yii ma maa ngi si ligne bi. ana bu ma waxati lii yow yow foo woote woon. wallaahi ah. foo woote woon. Colobane. Fatou waaw waaw Colobane mi yaa wax na ma ba yu jël la ci suuf. waaw bàyyi ñu jël la tey may naa. la kontaan kontaante bi moo ma jàpp raw ba mu dagg. <laughs> ma ne ma ne ma bu keroog bi jeex na mu tey may may naa ko juróomi junni. waaw waaw waaw ah, jël ko de ñu jël la tey. ñu jël ah, après dina ma def le point ah ma sant lay neex na ma waa baax. <laughs> ah kay baabu baax jërëjëf <laughs> dégg nga. Ah. loo xale bi suy am doom mën na cee ñàkk bakkanam. Mm-hmm. mu am doom mucc mu ni may leen ma ko. Mm-hmm. gis nga doom ja directeur école ba lañ koy tuddee est-ce que xam nga ne. yaramu jigéen dafa war a muus. waaw pour mën a pour mën a lépp def lépp. Mhm. Euh, il faut mu muus. waaw est-ce que xam nga âge yooyu ñi nga xamante ne ñu ngi yàq suñu doom yi xale yi yax yi sax muusagul. Mhm. pour mën a dékku. Mhm. góor ba di accoucher. xam nañ loolu moo tax ñu naan grossesse précoce te beneen bi mooy directeur école ba lañ koy tuddee directeur école xam nga lu tax ñu ko koy tudde pour mu fàtte bi pour info affaire coow ba ñu jóg pour que mu couvrir ko moo tax directeur yi bëri tudd léegi nag suñ ko ko tuddee mu takk ko gi nga takk googu mm. takk mooy nekk takk suuf gi mm. yow yaa ngi dëkk jur Jurbel mm. ñu affecté la maatam mm-hmm. nga def loo foofu loo Matam doomi jàmbur loolu mm-hmm. doom ji du génn maatam mhm. takk ba sëy ba fa lay yem da ngay xëy suba moom ci boppam mu mhm. ñaan affectation dem dem dem dem Tamba. fàttali ay ay mbokkam du ñu yëg sax ne defoon na. tojaana ak bari doom yi ak bari doom yi mel noonu. ci ci ci ci mm. région yi. moom mooy ñaan affectation. Mm. parce que doyal na. Mm. daal di dem ci beneen secteur boo xam ni. Mm-hmm. changer numéro mm-hmm. ñu koy wër doo ko gis. Mm-hmm. ab enseignant fii nii ci dëkk bi. Eh, soo gisee ñuy naqaree seet monsieur Ndiaye rek lan lay wooye. te léegi soo gisee. valeur bi en bi enseignement bi comme Sénégal Ndiaye. léegi na xam nga bu jëkkoon ñun Moussé Ndiaye rek la ñuy xam. mooy journaux yëpp li ñuy wax Soleil. léegi Moussé Ndiaye bi sax dindi nañ ko. Mhm. léegi soo demee ci région yi. Mhm. soo gisee enseignants yi. Mhm. su dee Moussé Ndiaye la Ndiaye rek la la waa dëkk bi wax. Diop. seetlu woo loolu. Goudia bi. léegi Moussé ji dindi nañ ko. parce que soo demee bay sa bay bay def yaramu neen sa kanamay élève mérité woo ñu lay wooyee Moussé. titre monsieur waaw titre boobu mérité woo ko soo demee bay sàgganu mhm. dama doon wax euh, sama benn sama benn booy bu doon bu ñu doon def stage animation mhm. ma ne ko gis nga auditrice bi la fan ba lay déglu mhm. bis boo defee yaramu neen ci kanamam su fekkoon cent auditeur lañu ndaw soosu topp la ne def la fan nga utiliser ci fan fan bi bi mu la fan nga utiliser ko ba séq ak moom yenn yi xam nga dana daan déglu chaque jour dootu la déglu mun ma lu tax man ko parce que la kumpa nga nekkoon ci yow kumpa kumpa nga taxoon ma la doon déglu ah dindi nga ko mooy mit rek waaw man ne ko nag sooy doog a dugg ci animation bi lii tax il faut il faut lii pour nga maintenir ko mhm. il faut kumpa googu mhm. mu bañ koo xam euh, xam nga mami dem nañu ba nga xamante ne ne que mhm. malheureusement ñu ci ëpp ñu ci ëpp ci jàngalekatu primaire yi ay pédophile lañu. dëgg la. no non non dëgg la. Ah. dëgg la xool ay xale yoo xamante ne ay 6 ans ay 10 ans. Uh-huh. nga ciy xalaat am na ñenn ñoo xam ne xanaa xamu ne am na ñenn ñoo xam ne mag ñoru leen. Uh-huh. du ñu xool du ñu xool ku ku ku mature wala ku uh-huh. ay cëram mat. ñooñu moo tax da nga feebar ñu dañu feebar de. Mhm. parce que koo xamante ne yow yow koo xam ne bàyyiwoo fi liir buy doog a judd. 6 mhm. mois nga koy jëm a violé. Mhm. wala boog 3 ans nga koy jéem a violé. nga dem ba nga xamante ne am na ñenn ñoo xamante ne pédophile lañu te ñu ngi jàngale ci école primaire yi. moo tax gis nga mami dama bëggoon profiter ci ñuy seetlu suñuy doom ak di wax ak suñuy doom. léeg-léeg nga gis kenn koo xamante ne nekk sa euh, wàcc di suux mhm. yaay tawlu fa mhm. xam nga kuy suux su ñooy fekk ndeyam dina ko lu ñuy suux mhm. xam nga yaay ja nekk fa pour xam ne day suux léeg-léeg nga gis si kenn koo xamante day ñëw gaawantu fóot silibam léeg-léeg nga gis si xale boo xamante ne dafay ñëw robb ba taché du xam lu ko dal lan la yow yaayam soo dem na ah, dem sànni jamre wala dem tuur <laughs> wala dem foo xamul wala nekk ci liggéey bi di daw di daw di daw doo xamante ne robb ba taché na ah su ko defee enseignant ba nga xam ne ma nga ca primaire ba nekk que ci ñenn ñoo xam ne du ñu commencé direct bi mm-hmm. de junj doy na borom xel mm-hmm. Mm-hmm. dañuy commencé seen baaraam dañu ma jéggal parce que dafa metti am na ci ñenn ñoo xam ne dañ ciy traumatisé à vie dañuy dem ba nga xamante ne même suñ demee ba nekk mag ñuy fàttaliku la leen enseignant ba defoon di gis un vicieux boo xam ne daf koy naan baleel su commencé bale ay baaraamam lay jël fekk ne ma ngay ut yoonu ëllëg li li may wax ni jéeg jéeg bu sëy ba am ñeenti doom woon ma fi bërgi dee mu ni ma munu ma wax ci télé bi waaye man sama enseignant comme ni nga wax noonu loxoom la commencé di ko ko def di ko ko def di ko ko def mm-hmm. hmm. moom ba léegi nii day day moo tax moom su doomam yi jàngee nee na doomam bu jigéen bi su jàngee moom xelam mi du dal mm-hmm. day jàpp ni jàngale ki koy jàngal mu ngi koy def loolu mi ngi koy def loolu te soo gisee nag région yi mm. soo demee ci région yi mm. dangay gis koo xam ni magum jëmm la mm. nekk école primaire mag la mm-hmm. mais dafa def jugement waa jëmm ji waaw mm-hmm. da ngay gis koo xam ne mag la mm-hmm. am na presque quinze ans wala am na dix-sept ans ñu wàññi atam ba dix ans kooku nag la ñuy baleloo ma kooku nag kooku nag day fekk mu ni wax lu tax ñu koy baleloo ak di ko yóbbu mu suufee classe bi allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bu baax bi maa ngi lay ziar waaw soxna ma ziar nañ leen bu waa kër gi mbaa ñëpp jàmm waaw sant yàlla bu baax a baax aca bismillah yow rek la ñuy déglu ci thème bi maanaam sama sama nijaay boobu sax la ko mën a xëy moom doy baax waaw na nga def ay sëñ bi mi ngi noonu man moom yow moom yow moom damaa kontaan ci yow. jaa jaajëf waay ñu ngi lay. ñu remercier bu baax euh, dëgg la sax ba ma mag boobu uh-huh. da may gën a delloo parce que xam naa yow xamaguma lu bëri ci àdduna mais. Uh-huh. su ma lay seetaat damay gën a xam àdduna may lan. jaajëf jaajëf jaajëf. parce que dëgg la sax sori naa may parents mais su may jàkkaarloo dina seetaan daal. Uh-huh. dina bëri yu bëri taxaw da koy moytu te xamu ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf. dama naa nekk fi ma nekk di ay ñaawteef yoo xam ne ëllëg. su ma gisee sama waay yëpp damay rus. jaajëf mais su ma lay déglu ba ma lay seetaan. dinaa mhm. moytu yoo xam ne man xamuma ko woon. Mhm. xëy na sax dëgg la ci mbirum école la wax. waaw jaar ma ci école mais. Mhm. ñëw ma ñu ne ci école. ndax euh, Dakar laa juddoo ñu joxe ma Daaru Salaam. Euh, ñu yar ma yaru yaru yaru yaru daal yaru murit. waaw waaw bëri na yoo xam ne dama ko rusa def sama sëriñ bi. di ko dégg. kii ku baax la kii ku baax la waaw ruus rek ak wor ma moo fi ne dañoo war a cultiver yar sunuy doom waaw léegi waxal waxal ci ñu ngan ne ñoo waaw am jëm précoce mm-hmm. ay nit yoo xale boo xam ni xale bi mi ngi juddu ku juddu 1988 mm-hmm. di jàng jàng ndekete mu defal nañ ko wàññi nañ koy atam ba mu judd 1992 ñu ñu jugement daal ba 15 ans fekk la CM2 mm-hmm. ba 15 ans fekk la CM2 ñooñu en général seen jàngalekat yi seeni moroom la ñuy doon lil wala du leen magee lu bari mhm. léegi nag précoce boobu ñu précoce commencé am ween xaw a am yaram tuuti xam nga suñ solee jiin nga xool leen suñ solee jipp nga xool leen luñ sol nga xool leen loolu souvent dafa loolu dafa bari ci région yi dafa bari trop ci région yi moo tax souvent professeurs yi di leen xool mhm. waaw daf ci bari ah, ñooñ la ñuy baleloo en général ñoon ñoon la ñuy la ñuy baleloo ñoon la ñuy yónni ñoon la ñuy def xarit ah yére soo demee ci région yi pour ñu xam nga nit ku fóotal la du ba dara xale bu jigéen boo xam ni xale bu jigéen boo xam ni day fóot yére yi papaam fóot yére yi yaayam uh-huh. enseignant bi su la nee ñëwul fóotal ma maire yeeg paa yi dañuy ci kontaan ndeysaan professeur am dee ni ko mu fóotal ko xaritam la ndekete waaw ndekete ma ngi koy xaw a rey te yow xamu leen ci dara uh-huh. xale bu jigéen te ñun réew mi Sénégal dañ ñoo mooñaale ñoo xam ne xale du wax soo waxee xale du nettali noonu ñu ci yare moo tax xale mën naa toog noppi waale benn affaire noppi waale ko laal nga fu am maanaam waale ko noppiwaale ko noppi waale ko noppi waale ko ba nekk mag ba jour bañ ko bu amee jëkk jëkkër ñu war koo jébbale ndekete professeur am mhm. wala ku ko daan jàngal daara moo ko def loolu mhm. léegi nag mu am problème wax ko jëkkëram yegg ci korom gis gis ni du jànq mu indil kay problème yaayam indil kay problème yàq nga famille bi tas nga xeet wi te su waxee ni yaa 15 ans sama professeur wala sama sëriñu daara moom moo def lii kenn du ko gëm. wala yaa ngi fàttaliku met ba doon ñëw euh, ca kër ga nga utaloon ma ko mu may jox ay cours du mm-hmm. la yaay. mus naa wax mus naa xam nga ragg boobu golo moom yàq saabu la ndax boo ko bàyyee mu xelam wàcc suuf si. Mm-hmm. gis nga nday gileem bàyyi gileem su doom ja màggee sëf rek la mën a baaxoo. Mm-hmm. moo xam nag ndax day sëf xorom wala day sëfi saabu. xam nga luy wax ji. boo juree sa doom tëggal ko mboyangaan mhm. fu ko neex mu yendu fu ko neex mu fanaan ku la ko àbb nga abal ko ko mhm. lu ko dal jëlal mhm. lu mu la indil fatal demal fóotali sa professeur demal fóotali sa maître sa professeur ak sa su bëggee ko ko fóotal mu génn ci poche am dem fay <laughs> moom dañ koy fay su bëggee ko ko fóotal mu dem takk jabar indi ci biir këram mu di ko fóotal su bëggee ko ko fóotal mu jël rakkam ju jigéen mu fóotal ko mais dafa am yenn yoo xamante ne su ko nday tegee doom ja lu ca fekk doom ja bu mu gàddu gémmiñam di yuuxu doomit deful parce que doom nday moo ko jur yow na nga def ba sa nday sàmm la ba nga toll na nga toll mhm. boo ko defoon ba sàmm sa doom mu mucc mais sa doom dañoo laa bind bool waxoon naa ko fi keroog dinaa ko waxaat tey mhm. dañ laa bind boolu 15000 20000 soo yekkee gàddu bool bi jox ko sa doom ne ko demal yóbbu taa dëggantaan mooy deseer ba day def su taajee bool ba pare day ataaya waaw doom bi mooy deseer noonu daf ci waroon mën a dem réviser ji kon kooku waroo ko woon mën a yónni wala nga jàngal ko nu ñuy raxasee bool wala nu ñuy defaree waañ mais gis nga gis nga mami mhm. dama lay delloowaat dafa am ay jigéen yoo xamante ne naturellement mhm. euh, man gis naa ci kenn koo xamante ne moom daf ci faset euh, jabar mhm. parce que moom moo dem ba seetlu ne doom ji dañu yegg ci kawam góor moo dem ba seetlu ne doomam bu jigéen dañu yegg ci dafa am ay jigéen yoo xamante ne wóor na yàlla ak niñ ko sañ a wax franchement téye leen sax daganu parce que ndax dañu sàggan xaw ma ndax dañu amul fibre wala lan moo leen dal parce que yenn jañax yi ngay wax ak mhm. yenn sàggan yi ba nga xamante ne euh, gis nga xale ñu ci bëri su fekkente ne nekk ñun ñi nekk ci média yi da toog di waxtaan ak ñoom li leen dal yépp dañ lay wax ne nekk jamono ja nga xam ne ñu ngi woon ak papa ak yaay ak nijaay léeg ci kër ga lañ léeg-léeg koy defee léeg-léeg ci béréb jàng te mu ngi ñu ngi woon ak ay mag mhm. Mhm. te te jamono yooyu xëy na seen xel demul woon sax ci ñu nëbbatu waaye dafa am fa lenn fu ndoy baan laal léegi bu am bu am solo mhm. gis nga suñu culture tamit joué na ci lu bëri bëri lu bëree bëri bëri waaw yar sooy nettali ñu lay pes sooy nettali ñu dañuy dem ba nga xam ne ba pare waxoon naa la euh, ki ma seet si woon ne ma dama bëgg nga wax ak sama doom bu jigéen mhm. nee ko nangam nee ko nangam nee ko nangam te muy taawam bu jigéen te muy jigéen di sama morom ma ne ko balaa may wax ak moom dama lay laaj lu tax nga bëgg ma wax ko mu ne tout simplement parce que sequma ko ak moom da ngay yor sa doom bu jigéen doo seq ak moom waxtaan doo xam lu nekk ci xelam doo xam xale bi lu muy dund loolu moo tax émission thématique yi yi nga xam ne miy nekk ci rajo yeeg télé yi xale yi di ci bàyyi xel parce que fii la ñuy jàngee mhm. parce que seen yaay du wax ak ñoom mhm. donc yaay bi nga xam ne jur nga te dem nga cultiver parce que wax tamit dañ koy teel a commencé mhm. dem nga ba cultiver distance sa diggante ak sa doom mais sa doom suñ ko laafu ganaaree ca école ba muy mineur rek di primaire rek di ko baleloo yegg ci kawam mais du ñëw wax la ko xëy na meilleur ameem la koy wala boog mu wan na ko wanaasu ko da ngay dem ba nga xam ne ay xale soo xoolee nii rek xam ne xale yi nekkuñu xanaa xamoon ni neex na xam gis nga fii nii soo toogee sax ci buntu télé bi uh-huh. xale yu lay seet si balaa muy wax sax da xam xale yi nga xam ne nekkuñu xale yu te dañuy nekk ak seen yaay ak seen papa uh-huh. mais du ñu wax uh-huh. ñuy dajale di dajale du wut fu ñu ko yooxoo di crier au secours balaa ñuy dof wala boog balaa balaa balaa balaa ñuy ñu ñu ñuy communication communication ah communication ci ci lépp ci lépp la man lu ma jàngatee lu ma jàngatee ci sa baat boobu ah. mooy wax dafa am waxtaan am nettali am pas toog ak sa doom woo waxtaan ak moom am mhm. taa diggéen kenn soxlawul nettali mhm. ndax euh, gis nga sa doom ji ngay tere ne ko bul wax mhm. yaa ngi koy wax loolu ko gën a yées dëgg la ndax yaa ngi génn toog ak moom ci buntu kër gi ma mi romb lay dem nga ne xool ko fërëñ fërëñam ak tànkam yu dëng jëwloo nga ko sa wujj solu génn nga ne ko lum sol fu mu jëm yëral ma ko ba xam mu dellu si nettali la ko nettali loo nga ko gis nga nit ki soo ko mënee may mu wax la lu dul farata may ko mu wax farata nañuy waxtaan ak suñuy doom tubaab yi bu ñuy jël ci ñoom yenn royukaay mais la ñu baax le nañ ko jël mm-hmm. tubaab yi dañuy ëmb toog tim seen biir di wax ak moom mm-hmm. parce que nit ki li nga séq ak moom da ko koy wan sax bala muy ñëw ci mm-hmm. sa doom di wax ak moom am na beneen danger bu boo xamante ne ñun jigéen ñi mën a wujjee ak mën moo ñu ci yóbbu mooy jël sa bënn ñaari bënn ràng ko or ba mu fees di wan ña muy taseel école ba muy jàngee ne da ko mën da nga ko am doomu diriyanke la borom lambu diis bi gis nga ci lambu diis boobu ci lañ koy rayee ndax nit ki da koy yóbbu pour bëgg a tekki jaaro yi mais ci tekki jaaro boobu ci beneen musiba bu ci gën a garaaw mhm. kon loolu aussi nañ ci bàyyi xel mhm. nga ne sama doom bu ma wax bu ma nettali mhm. am na lu dul farata mi la koy nettali bàyyi ko mu nettali la farata bi doom du ko ne dafay ñëw rek nga ne ko nettali ma looy yéen doom am na noo koy taajee mu wax la dëgg allo allo tata Degen waaw maa fii waaw tata maa ngi lay nuyu ñu ngi leen di sargal bu baax fooy woote maa ngi wootee Géejawaay naka waa Géejawaay waa Géejawaay ñoo si ah, élève nga wala lan nga étudiante wala lan ah mane ne élève nga wala étudiante wala lan. man léegi jàngalekat la. ah yàkkamti naa la bisimilah. <laughs> jàngalekat la bisimilah noo gisee waxtaan wi yow. waxtaan bi rafetlu naa ko trop na. Mm-hmm. mais nag. Mm-hmm. ci secondaire bi. Mm-hmm. xool naa ni élèves yi ñoom ñooy charmer professeurs lu tax. waaw ndax dañuy sol yoo xam ne nii yu bon lay doon man élémentaire bi laa nekk mais élèves yi dañuy sol yoo xam ne yu bon lay doon di sàrme professeur bi mm-hmm. di leen sàrme di def affaire yoo xam ne daal mm-hmm. méngoowut dëgg la moo tax uniforme bi bu ma sañoon école yëpp uniforme la ñuy def ah comme kenn dootu sol lu gàtt kenn dootu sol bu wala jupe ak ak yére yëpp kaki lépp noonu la ñu doon def ku nekk di sol tubay ak loo xam ne trois quarts lay àndal. Mhm. chemise bi trois quarts. Mhm. Mhm. dëkk dë ma li nga li nga dëkk yi ñu wër. dëkk yu ñu wër soo leen seetee. Mhm. dëkk yu ñu wër nii. bu subaa ma indi la robe bi goney Abidjan di sol. waa mais dëkk yu ñu wër nga dem Burkina dem feneen ak feneen da gis ñoom ñëpp xale yi suñu rombee def càgg da ngay xam ne ñii ay élèves lañu. Mhm. Mhm. Abidjan dañuy def bleu blanc bu dee xale bu ndaw. marron blanc caro. waaw ñëpp a koy nuróole. bu dee ñi xaw a mag euh, secondaire bi dañ leen di defal jupe wala tubéy bu bleu chemise bu blanc. xam nga lu ma ci gën a neex xale yëpp ay raser seen jupe baaxul pantalon nga leen di defal waaw fii sax boo leen defalee jupe moom ñu taayawaat ko leen defal ba pare mhm. dañuy am na ci ñenn ñoo xam ne temps wu seddaay sax école yi mhm. ñu ngi ko doon commencé gilet ba ngay sol bu seddaay bi sax bokk na ci ci ci kii am na waat tàngaay ba mhm. chemise ba fii xale daal bul yëg tàngaay bul yëg seddaay mhm. jàng lañ la sant jàng lañ la sant mhm. kon loolu il faut tamit ministre bi bi nga xam ne moo yore éducation nationale mhm. ak ñi nga xam ne ñoom ñoom ngànk réew ñu dimbali ñu ci ñun ñi parents yi ci uniforme généralisé xalifa sàll sax mi nga xamante ne moom mooy mairu Dakar nga xam ne mu ngay joxe ay meew ak yooyu na ñu taxaw ci uniforme généralisé bu kenn sol jupe ñëpp tubay tubay yu xaw a yaatu nii comme suñu temps niñ ko doon defee nii def fii ay pince yaa ngi dégg def ko ak yi nga xamante ne ba pare def ko ay kaki kaki bu beige wala kaki bu verte non. te def ko kaki boo xam ne xale yi duñ mën a dem ci boutique yi dagg ko pour ñawlu ci pain. déedéet soo pain ma dàq la xam nga lan la dafa am ay yëf yoo xamante ne ne ko suñ la joxee tenue ba. Uh-huh. soo ñëwee ne ko ràcc sa kaw ma dàq la. Uh-huh. dafa ci am ay rigueur yoo xam ne gis nga école bi. Uh-huh. mën na dellu nag fa mu nekkoon. xam nga baax li ma la waaye. Euh, euh, kenn du def omelette te doo toj nen. Mhm. il faut mhm. ñu toj il faut yi bu baax. Mhm. batiwaat ko bu baax omelette bi fuur. parce que su fekkee dañu toog di ko laam-laamee rek. gis nga affaire bi day gën a metti day gën a bon parce que xale yi dañoo am fit. affaire uniforme yi suñu bëggoon mu gaaw. sandi syndicaliste yi nga xam ne mat nañu fanweer ci réew mi suñ jógee di grève grève lii indemnité lii indemnité laa bis bu nekk ñu nekk fii ratatatir mm. sonnal nit ñi ci rajo yi mm. ak télé yi gis ku ci grève ne xale yi bu ñu solatu lu voilà nañuy grève pour que xale yi li ñuy sol baaxul na mm. nañuy grève que ni seen bokk professeurs yi dañuy tëddee gone yi nañuy grève ndax léeg-léeg li su ko defee askan yu sax dina dina dina leen jàppale dañuy laafu ganaar waaw léegi nag ñoom e e seen ñoom seen intérêt rek intérêt xale yi ñoom toppatawuñu ko seen intérêt rek ñoom en euh, pour en yi seen intérêt toujours seen intérêt xale yi seen yoon nekku ci est-ce que ñoom xam nañu grève yi ñuy grève li ci xale yi di profité dem di ci taxawaalu ci dëkk bi est-ce que xam nañ xam nañ loolu loolu ngaañ bi muy gaañ xale yi grève bu ñu grève rek soo amee papa ak yaay xam ne jànguñu di ngeen grève dina am mois papa ak yaay duñu xam ne sax grève am na mm-hmm. xale yi di cakaay xale yi di xëy suba di ci dëkk bi di taxawaalu rek mm-hmm. mais loolu ah, syndicalistes yi lii nii ci seen combat la war a bokk. mais est-ce que xam nga ni euh, doguma la balaa balaa mami mhm. ma lay jox yëg nga ni ne euh, jàngalekat yu ci bëri yi nga xamante ne ne que ay jeunes lañu. Mhm. dañuy am seen genre appartement wala studio boo xamante ne ne que. Mhm. xale yi nga xamante ne ñooy daw jàng foofu la ñuy yendu. waaw dañuy dem ba nga xam ne complicité bi foofu la ñuy defee boo wax démb. bi ma doon bañ. ban yàmbaa am nga autoroute. ah si makaani bu si bi. waaw foofu lañ koy defee waaw ak mbaxal mi ak mbaxal mi. am mbaxal mi ma defee mu mucc bi salañ salañ bi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ak bi jar 100 bi. dafa ci am boo xamante ne mooy seen complice ci këram la ñuy defee lépp. yow fu koo xamante ne soo bëggee tox yàmbaa fa ngay dem. soo bëggee tox cigarette fa ngay dem. soo bëggee naan. 500 beeg canette beeg fa ngay dem. xanaa du kooku nag mooy indi nag réseau bi pour di yàq suñu ay doom. te xam nga lan moo triste. léeg-léeg nga gis si kenn koo xamante ne mi ngi toog di ñu déglu nii ne dalul doomam fekk ne dal na doomam bu yàgg. waaw bu yàgg yàgg yàgg. <coughs> yàgg na da koo talul wala da koo seetlu wala dafa waxtaanal ak moom. da koo talul ba ko da koo talul. te gis nga saak yi nga xamante ne démb ñu ngi naan carnet intime yi. Uh-huh. saak yooyu am carte carnet intime. Uh-huh. soo ko tijjee saak yi yi ñuy denc carnet intime léeg lee dañ ci def benn genre na uh-huh. soo ko tijjee ci nga gis pilule. pilule ci jëm boppam xale soo leen gisee grossir yu anormal yi ñuy grossir ñu ci uh-huh. bëri dañuy naan pilule am na benn xale boo xamante ne dafa ñëw mu ne ma xam nga tata man du ma mën a jeex ma ne ko lu tax mu ne ma defal alcoolisme ci jeunes yi parce que man alcool bi moo may funkiloo te élève la <laughs> moo ma joxoon te mu uh-huh. alcoolisme bi uh-huh. mu ne alcool bi moo koy neewi lu boo koy fëggul fekk ne dem na di naan bay naan naan yu foor yi butéel yu riis yi yaa ngi dégg baax la ma te muy doomu ay nit ñu baax yaa ngi dégg ñoom ñoo lay souffler ay thèmes yoo xamante ne moo tax bu kenn toog di wax ne nekkul sama kër lii ñu koy def jubluwuñu ci dara lu dul pour ñun ñi yaay yi ñu fagaru def bii di xool di mm. déglu xale yi di dem ci école yi waaye xëy suba fin du mois bu ne nga ne ko joxal lii li ci des maa la ko may jëndal yére xale ba jënd ay suufees mm-hmm. jënd ay nangam ràcc peew lu nekk mu def ko dënnam yi mu génne ko dem école ba mm-hmm. yow ñëpp ay xam ne kii du élève ba mu des yow mi ndeyam mm-hmm. nga defee ne ndey ji nga xamante ne moom la doomam gën a bon gën a mën a taxawaal kookoo gën a mën a uuf doomam gën a mën a xas doomi jàmbur man damaa gis groupe bu élève buy ànd boo xamante ne yaay ki ci gën a dëng mooy woo doom ji naan ko bul ma àndal ak diw neexuma ni muy doxee neexuma te moom ñooñu ñooy jubbanti doomam moo taxoon barki dem man la woon jigéen dafa am yenn yoo xamante ne du ko mhm. xam du xam baatinub jëkkëram du xam baaxugu jëm du xam bonuk doomam mhm. te nit looy di ko adressé ci doomu jàmbur njëkkee ko ci sa doom ba pare comme ni ñu koy waxee journaliste bi mhm. yow sën bi njëkk ko juug ci sa sagar ba pare soogay di ko tànn laa ni keneen ndax xam nga lu tax mieux vaut prévenir que guérir ne sa doom dafa baax mu wóor la ne dafa baax sax jël ko juug ko ci juug bu bon bi di ko wax waxee nga war a wax ñu bon ñi pour mu mën a xam ne moom mi ah, aussi rawagul mm. beneen bi ci topp mooy mm. da nga ciy dégg xale boo xamante day gis li ay moromam di def mu àndandoog ñoom di ko def fekk ne xamul moom la muy def ngaañ mm-hmm. ko ci jublu mm-hmm. moom na nekk nandite comme ñëpp te yi moom mën a yem ay kamantaawul la man daal man daal ginnaaw yaay mm. ñimewuñu seen doom yi jigéen yi papa yi nañu jël combat bi xanaa papa bu du wax débrouiller waaw xanaa papa bu ma xam ay wareef waaw waaw waaw papa xam ay wareef parce que nag su fekkente ne jël nga wax papa ak ñi ñu ko sañ a wax dañu dégloo xel suñu jëlee jamono ji sans papa mhm. cinq ñooy def seen i wareef mhm. juróom mhm. dëkk bee toj gis naa fi bërki démb benn sama benn copain bu naroon a tëj ci kaso bi mm. jarbaatam mm. élève la mm. moo nekk ci dëkk bi di def naka su dul noonu ak ay professeur am mu taxaw di ko wax ba koy bëgg a dóor bu xale bi dem porter ko plainte Mm-hmm. soit def na def def na ñetti fan pour police jëppal mm-hmm, mm-hmm. mais nag xam nga li ngay wax naan na na parents yi nangam sangam ak na papa yi jël xeex bi uh-huh. am na ci papa yoo xam ne mënuñoo jël xeex bi ndax jamono juñ toll la mm. te réew mi mor ndimbal dafay dee ñu sul ko armée li ñàkk yërmaane mu dekkee bàmmeelu ku la ñeedu la dolli mm. tabaski daa jub si bëgg nañ buum mm. bëgg nañ xale yi solo te comme duñ leen ko jox te bëgg nañ leen jekk na faaw ñu bàyyi leen xale yi dem wuutu ko xale yaa leen di jox gañilaa yi non xale yi jënd xar mi jënd gañilaa bi jënd dëwlin bi jënd boisson bi jënd publicité balaa ñuy dem xanaa jënd paaka ba ñuy rendee xar ma de ma ne du jënd paaka ba ñuy rendee xar ma ndax fekk nañu reddi ko ba pare moom <laughs> nañ dem léegi balaa ñuy di fenn damay siyaarat bu baax a baax soxna uh-huh. Bali Muntaxa ñu koy siyaar bu baax a baax uh, ak uh, ajaratu Fatou Géwél Diouf kontaan naa ndeysaan ci déplacement bi réy ci man loolu di leen ak France ga ñu jëm ak bis bañ fay woote yëpp wallaay macha allah mm-hmm. kontaan nañ torop Mbàkke soxna Bali Muntaxa jërëjëf mm-hmm. jërëjëf kon ñu dem publicité dellu si yow da ngay génn ak sa professeur euh, fi ñu jógee sori na pour fekk la fii parce que sa histoire dafa doy waar. Euh, yow naka nga def bay génn ak sa professeur yi. waaw li ma lay wax nii man maa ko dund. Mhm. ndax fi nga jógee ni mu soree ñëw ba fekk sama fii nii moo tax ma lay expliquer. Mhm. man damay génne sama quatre professeurs. quatre quatre professeurs. Mhm. mais man. li tax may génne samay professeur man école privée laa sama benn copain moo may fayal. sa benn far. waaw sama benn far bi professeur la. non du professeur. Mhm. mais moom may fayal. Mhm. léegi moom may fayal te sama yaay lijjantiwu kan moo may mhm. mu lay fayal. trois ans si ban classe ngay def. ren laa doon def seconde. kon moo la fayal ba nga am BFEM. waaw kooku de xam naa doo ko trahir moom. <laughs> mën naa am du ko trahir. waaw mën naa waaw léegi. ndax. Mhm. ndax mun naa mun naa am dama ko travailler mais instant yi daal maa ngi génne professeur quatre professeurs. Mhm. pour ma mën a satisfaire sama yenn besoin parce que su ma jànkee lu ma jox lépp. quatre professeurs yëpp ci benn école bi leen ne. déedéet ñett yi ñoo bokk école benn bi bokkuñu école. ñett ñi ñoo lay jàngal. waaw ñett ñi ñoo lay jàngal. Mhm. ñoom moom yaakaar naa xamante wuñ xamante wuñ seen. waaye naka nga def bañ aborder la yow yaa dem ni leen dama leen a nopp. ou bien ñoom ñoo ñëw comme élève bu compétent su ñëwee si classe des fois nekkul ñoom dañuy ñëw di la laaj boo leen expliquer ñu xam ne yow da ngaa compétent war nga mën a nekk après ñu profité si affaire yooyu di la xarit. Mm. di noonu noonu ba ngay génn ñoom man moom man moom mënumaa ñàkk ba ñu génn police parce que ma génn loolu ñoom du ma mën a faj sama yenn soxla yi. Mm-hmm. loolu moo may mm-hmm. génn ak ñoom pour faj say soxla. ñoom lan lay may dañ lay may xaalis. waaw may may xaalis. Mm-hmm. duñ ma may note moom ndax maa ngi jàng moom normal. la may note. waaw mais yow yow yow par exemple yow professeur yi soo bëgg gisante ñoom fan ngay gisante ñoom seen kër yi wala. kenn ki moom saa ma ma dem këram moom ma dem ah, nga xam këram. ki nga xam école bi la nekk. déedéet ci beneen école la nekk. mais ñett ñi lay jàngal mosoo cee couché ak kenn. déedéet bëgguñu loolu xanaa. ah man ak ñoom ñooy nekk tout temps foofu laay jàngee su ma nekkee après xaw ma nuñ koy xaw ma ñoom nañuy réagir moo tax. xanaa ñoom kon soo bëggee gisanteeg ñoom naka ngay gisanteeg ñoom ci école bi rek. ci école bi kese. ci naka may woo téléphone saa su ne may waxtaan bi ci loolu rek la yem. waaw génn bi ci loolu la yem. xanaa yàggoog ñoom. a dem seen kër di leen seeti. Mhm. a nax si côté boobu ne leen suñu waa kër dañoo fiir. Mhm. léegi nag léegi nag parce que am na ñoo xam ne ñuy seex li ñu seex ci biir école bi est-ce am na am na moom yi yoo xam moom gis na suñu école moom bëri na yi doxaan élèves moom. Mhm. am na sax ñu takk élèves mhm. mais moom ñeneen ñi moom xawma lu ñu dund yi. Mhm. ko de. xawma ko mais tey sa yaay yow sa yaay sa yaay trois ans yi nga xam ne mi ngi toog di la ko fay eh, ñooy bi di ko fayal te xam na ko est xam na lool xam na ko kay. xam na ni safar bi moo moo moo lay fayal. safar bi day ñëw ci biir kër gi. waaw day ñëw ci biir kër gi. doxaan si. sa papa du ko wax dara. moom euh, sa papa est-ce que lijjanti na la kan moo lay fayal. lijjantiwul moom mun mën na la fayal wala. mën na ko kay day liggéey. moo na la ni mën na la. fayal wóor mën na ko. ba pare mu bàyyil safar bi di la fayal. waaw da ngay yow da ngay couché ak safar. déedéet ko def. déedéet ah, moom lu muy liggéey moom. moom xaw ma nag lu liggéey. safar bi laajte wu ma ko lu muy liggéey en tout xanaa xanaa yàggule. Ah, su ma juumee am nañ ay 4 ans yooyu noonu. Ah. génn nañ un an mosul maa gis muy dem di ñëw rek. xaw ma nag lu muy xamoo këram. xam naa mais naka ngay génne nit 4 ans te xamoo lu muy liggéey. ah laaju ma ko ah. mm-hmm. te bis ne ngay gis muy dem ak ñëw rek di lay jox xaalis. te xamoo dara lu muy liggéey. xaw ma dara waaye yow tam yow tam yow tam yow tam say affaire tamit jar naa seetaat naka ngay génne nit 4 ans mu lay fayal école. ah sa yaay xam ni sa kii xam ni moo lay fayal sa papa xam ne moo lay fayal te xamoo lu muy liggéey. ah man moom lu muy liggéey intéressé ma lu mu may fayal rek presque moo may intéressé. lu mu may fayal rek moo may intéressé. yow yaa ko wax mu lay fayal. non proposé moo ko proposé mhm. mhm. xam naa ne sax sama jàng mën na see jaaree yàqu ndax tey bu xëyoon bàyyi ma la du du am am ku ma fayal. Mhm. yow wóor la ndax agresseur la wala commercant la wala xamu xamoo lu mu doon daal xamoo dara. daal li ci la doon. mais mais tey jii euh, euh, yàmbaa ji ñuy wax ci école yi ak sàngara seg yooyu est-ce loolu am na. waaw parce que benn jour suñu directeur moo ngi ñëw nee daa am ko ko wax élèves yi si école bi dañuy mm-hmm. gis. te mm-hmm. tamit ne mm-hmm. école bi nee moom xam na ñan la dina leen convoquer waaye ñun moom laajuñu kon sa ñeenti far nga am wala juróom. ñeenti ñeenti professeur. ak ak ki lay fayal. te kenn nga ciy kenn nga ciy mus a defal rapport nga wax kenn benn ci professeur yooyu kenn heure boo ko namee ci moom ngay dem ñi ci des nag ñoom ah. sa waa ji moom tamit moom moom daal moom daf maa bëgg yaaram la di rafayal waaw ah, kooku moom jàmbaar la de moom <laughs> ok jaajëf mbokk téléspectateurs yi am mbégte nag dellu si waat ak yéen ba tey ci seen émission wareef ci télévision Futurs média seetu askan wi relation professeur élève waaye gis nga kii dafa ni maa dund mhm. maa dund lu doy waar la mhm. ah maa dund mhm. xale bi nee na moom am na ci quatre waaw ak cinquième bi koy fayal wax naa la fiiratuma déedéet boo fiiree sax da ngay dem ba da nee na am na quatre professeur quatre professeur ak cinquième bi koy fayal mm. kooku ba kenn bokk ci sa morom mm. pendant trois ans seen waa kër jéemuñu xam te li ci gën a metti mooy mm-hmm. ndeysaan yaay ngi dund papa ngi dund mm. trois ans mm-hmm. kenn musul laaj kenn ku lay fayal kenn musul laaj foo koy jële kenn musul laaj foo koy liwee mm-hmm. nga dem ba dégg mun la dama bëgg neen la kenn ki dama ko bëgg fu ma woo mu wuyu mais malheureusement li ci gën a metti mooy gis nga kooku muy bëgg noonu koo koy ki ko bañ nag kookoo ko bëggul que moom mooy ki koy rey moo koy tëdd suba ngoon guddeeg bëccëg te del xool li nga wax lay def day xëy benn jour rek ñu affecté ko mu dem bàyyi ko fi xale bi mhm. nekkaat di wëndaa ndaaluwaat mhm. mais taa dëgg dafa di wax fan yëpp nañ leen ko waxalaat ñoom gone yu góor yi toll ci di labatante ak seen moromu gone yu jigéen yi ci biir classe bi nee nañ prof yaa ngi leen di rey mhm. ñi ngi leen di dàq ñi ngi leen di génne ñi ngi leen di teg ay métti tak dañu bokk gel euh, waa yi daf doon génn ak xale bokk mbalka waaw dañu bokk uh-huh. Uh-huh. daf doon génn ak xale bu jigéen bi jékki-jékki ñu ami problème benn élève bu bees ñëw ci école bi bi mu ñëwee commencé xale bu jigéen bi mais prof bi bu mu xamee ne xale bu góor bi xale bu jigéen bi ci nekk dafa commencé di ko dàq chaque jour kuuram da koy dàq te xam na ni moom kuuram la xale bi soxla parce que maa ngi lay wax barki dem ne la prof bi yor say matière dominante kooku ay koyofam dafa kawe mm. ndax multiplier par 10 dafa bokkul par 1 bële xëy na la nga fay am bariwul mais fii da nga koy soxla donc loolu da nga daw bay bëgg a dee mu xam ne nag moom moo yor sa matière dominante heure boo ñëwee classe am mu dàq la ndax la ndax xale bu jigéen bi mu bëgg moom nga bëgg mais moom na dem raasi ay moromam bàyyi la yow mi toll ci labalanteeg gone googu nga labatanteeg moom man daal dama jàpp ne taa diggéen gis nga bu ndawal yépp meloon ne res daskatu paaka du jógee Guinée ba Sénégal <laughs> xam nga euh, mhm. xale bii ne am na kaat dafa dafa yéeme xam naa ne yaay yu bëri tiit nañu euh, mami na yaay yoo xam ne seen doom am nañu huit huit professeurs. waaw kii quatre la am hmm. xam nga te damay ci jàngalekat yi ci jàngalekat yi la ñuy wax moo tax mun la quatre la am. Hmm. ñett ca école am. Hmm. benn ci keneen koo xam ne nekkul école am. noonu nee ki ak kenn koo xam ne ak ki koy fayal. ki koy fayal ñett ci eh, ñett ñett ku koy ji ñi koy jàngal. kenn koo koo xam ne jàngul ko. ak faram bi koy fayal. moo tax ma ne. Euh, léegi moom ak ñooñu ñëpp kañ lay am temps moom pour réviser wala pour jàng wala pour loolu sax mam yi xam nga dafa am lenn loo xamante ne suñuy saa yuñ daan def émission ci affaire ay prostitution ma ne prostitution ki nga xamante ne ne que dem na ba yore carnet ba di dem visite ñu koy seet di xool ndax du pro yorul ay maladies sexuellement transmissibles mu yor carnet assumé ko kooku dangereux mhm. dafa am beneen forme constitution boo xamante ne loolu mën na taal réew mi mhm. Mhm. xale yi nga xamante ne ne ko jugee guñu ci xottu gerte xaw ma xottu nen xaw ma koy mhm. waxee nga xamante ne nekk yaa ngiy jàng nekk cinquième wala nekk quatrième am quatre far ah nañu ma jéggal quatre professeurs yoo xamante ne ku ca nekk yaa ngi koy seeti nga naan ci kii laa cay defal kii laa cay defal kooku kon xam nga mu ngi prostitué wu te amul ne kon su fekkente ne ne que professeur ba nga xam ne ma nga yore jabaram xale bi su ñëwee ci moom jox ko jox beneen professeur maladie gis nga chaîne ba ku ci nekk dem dellu jox ko sa jabar ci kër gi est-ce que gis nga chaîne u maladie sexuellement transmissible yi nga xam ne moo nekk mhm. gis nga xale yi est-ce que seetlu nga ne xale yi jàng ci école yi nañ ma jéggal ma mi mhm. ku la ci romb mi ngi xeeñ dañuy xeeñ buñ toogee buñ jógee buñ xoolal dafa ci am benn xale boo xamante ne ne mhm. gis nga su toogee su ci photo yi nii comme ni ñu toogee nii su jógee fauteuil ba kenn du ci xam xamante ndax xet mm-hmm. dañuy dem ba nga xam ne dañuy am ay xeetu xale yu ndaw am ay feebaru sëy waxoon naa la bërki démb professeur bi doon wax ne xam nga ne ku am feebaru sëy da ngay sëy ba nga xamante ne ku ñu jege ba pare day dem ba chronique mm-hmm. ndax dañ koy rus a wax mm-hmm. jëla foofu ñu ñëw ci maladie allo allo allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam waaw allo ma ne sëriñ bi waaw man de dama doon euh, participer ci émission bi ah. waaw ñu ngi lay déglu fooy wootee. Euh, France. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. Mhm. waaw man de man moom depuis seen bi la thème bu intéressant la. Mhm. ma bëggoon ci joxe tuuti suma xalaat rek. waaw ñu ngi lay déglu. mais surtout euh, de façon générale daal. Mhm. man euh, li ma li ma gis mooy que ni ça va faire bientôt deux semaines ah. yéen a ngi wax ci thème bu vraiment bu bu bu bu bu bu ñu intéressé daal ñun ñëpp en tant que ay baay ay ndey. Mm-hmm. man xool ne ci télévision la ngeen nekk. Mm-hmm. te télévision dafa am euh, ay fànn. informé. muy yëgle li xew. yéen a koy def. mais beneen bi def ci tegu di éduquer. Mhm. bu après éduquer boobu. Mhm. distraire la. Mhm. loolu yëpp ci télévision la. ma doon ñaan yéen. ay yaay ngeen ay baay ngeen. suñu ngi xas ngeen suñu doom yi. ay mandikat lañu jigéen ñi ay caga lañu. yow yow xas nga yow xas nga ko jàppee. Euh, ñun duñu ay parents yu responsable ci biir parents yooyu am ñu xamul. Uh-huh. ma bëggoon non non non bala bala ngay continuer dafa am benn affaire bu ma bëgg nga dindi ko pare xas parce que man am naa doom ji jàng kii am na doom yi jàng kii am na doom yi jàng affaire le mot xas laa bëgg nga teg ko ne ba pare parce que ñun tooguñu fi pour xas kenn dindi naa ko ok ñu avancé voilà uh-huh. ñu dindi naa xas ñu avancé ok kon ñu ngi lay déglu ma ne ma ñaan yéen yi ngeen xam ne ay ndey ngeen ak ay baay uh-huh. ngeen fexe ba. Uh-huh. mun a dellu balaa ngeen a jeexal thème bii daal. Uh-huh. ngeen mun a toog wax ñu yéen lan ngeen di digal lan ngeen uh-huh. c'est-à-dire la partie éducation dafa am importance. wala ngeen woo ay spécialiste parce que doom yi doom lañu. pro professeurs yi doom ñii seen i doom lañu. wax leen s'il vous plaît. Euh, xale yi ngeen wax góor jigéen ay pain mais ça c'est la mode loolu mën nañ ci discuter. Mhm. yéen euh, affaire xale la. Mhm. xëy na ñoom bu ñu demee ba nekk kilifa. Mhm. bu ñu leen taatagalee ci lii yoon. wax leen ko. éduquer leen. dinañ xam dinañ mun a jël seen responsabilité pour bañ a transmettre yooyu. man je suis pas d'accord. mais il faut que ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñooy responsable. Uh-huh. ñu bàyyi tuuti. Uh-huh. wax bi ñii lii lañ ñii wuyu lañ ñii lii lañ daal di joxe des des conseils. Uh-huh. vraiment loolu moo doon. Mm-hmm, mm-hmm. kontaan nañu ku baax ki merci beaucoup. ñu ngi lay remercier bu baax a baax. di nuyu waa France yëpp macha allah di bëgg euh, ndax mhm. woote jafe na mhm. te bu ñu fàttee ne suñu fi toogee rek li may wax saa su nekk mhm. doy baan du caageen dañu gën a xam wala dañu gën a mën waaye euh, li nga xam ne Ndiaye loo doon na ko wax euh, déglu neexal dégg neex dégg waa dafa am nopp buy déglu ak nopp bi nga xam ne day dégg day dégg effectivement fa tabaarkalla macha allah li ñuy wax saa su nekk rek suñu fi toogee ñun ñëpp ñoo bokk ndab li Sénégal li ñu naan suñu gaal uh-huh. te suñu demee dëgg la naam moom bitim réew la nekk mën na am sax xëy na gëj na fi nga xamul réalité yi uh-huh. waaye suñu toogee ndeysaan Serigne Mor Mbaye psychologue ba dafa teel a wax affaire u ndëpp uh-huh. national ba muy wax affaire u ndëpp national ak crise des valeurs yi boobu maa ngi rajo Dunia xëy na war na def vingt ans ca gannaaw ñu gis ne la mu doon wax vingt ans ci gannaaw tey la gën a actuel kon nag kon nëpp boobu ci li ñuy indi te naa la ne góom soo ko xoosul alcool ko rek doo la sànq ne kii omelette foog ñu nangu koo toj bu baax a baax uh-huh, uh-huh. ndax suñuy doom lañu te it bu ñu fàtte ne xale yi ñoom ñoo ñu jox thème yi uh-huh. yow gis nga léegi bi ñu posé léegi nii jox naa la ay numéro ay xale yoo xam ne ñu ne du ñu wax ci kaw ñu ne dimbale waxal Ndoye Bane mu wooñu yoo xam ne ay expérience yoo xamante ne xale ko dund ko durant des années ku ci nekk di ci wax di ci wax di ci wax léeg euh, euh, bi su dee waxoon naa la fi tamit ne su dee ñu ne wax leen gaaw ndax sorti yi ku bokkul sorti professeur bi yàq sa fin d'année yooyu yëpp nag muy ay métit yoo xamante ne ne mhm. dund nañu ko mhm. kon suñu fi toogee di waxe xam naa defaru ñu taxaw a mhm. kon kii jóge fii léegi doy baan amee lu ñu ko lu dul sargal ko di ko wax mu bàyyi ñu xel bu baax a baax mais nag tam comme ni nga ko waxee nañ ñuy dégloo parce que tamit ñun tooguñu fi pour pour xas kenn ah ci li nga xam ne moom lañ gis ci dëkk bi mhm. ak nak lañuy def pour loolu dañ ki nga xam ne day day day day sol par exemple góor bi nga xam ne day sol peew ñu naan ay moddu laak ñu xen xamul mhm. man sama doom bu góor ñemewul sol peew mhm. ñemewul sol tubay ju moof wala leen loolu sa yow mii borom kër gi yaa koy dindi ci kër gi góor da ngay sol solu góor même su fekkee modd la am na modd boo xam ni moddu góor piir la ku ko xoo soo romb wanee nit ñi ginnaaw di dem dañu xam ne góor a nekk ne di dem mais soo gisee góor bu am 15 ans am 16 ans 16 ans 17 ans sol solu wan la ginnaaw di niroog jigéen nga naan nga bàyyi ko noonu modd bi la su màggee dina dañ balaa màgg nekk góor jigéen dañ nga xam nga dëkk bi dañoo war a bàyyi tournée chaque jour nga gis ci journaux yi wala internet bi professeur tel ëmbal na élève am chaque jour nga gis ni sëriñu daara euh, ëmbal na élève am chaque jour nga gis ko ci journaux yi léegi nag su mais suñ ci waxul lan ngay lan la ñuy def il faut ñu wax ko xale yaa ngi seetaan émission bi yaay yaa ngi seetaan papa yaa ngi seetaan képp ñëpp retourné nag ni yéen eh seetaan leen wareef léeg lii ne dégg naa am na est-ce que yéen a ngi ci jéem a napp say xale jéem leen a sonne xool leen dafa benn professeur éducation physique boo xamante ne defe naa xaw ma vendredi la ma professeur éducation moom. moo mu ne li mu wax li ñu wax ci <laughs> professeur éducation physique mm-hmm. tamit. Mm-hmm. li nga xamante ne parce que nee na ñoom tamit ñoom du ñu directeur wala du ñu proviseur wala du ñu censeur. ma ne ko waaye yéen a moom seen cours. Mm-hmm. nga xam ne moom la ñuy ñëwee di def cours éducation physique ci jëm boppam. benn xale solotul jogging. mais xam nga suñu temps benn xale solotul jogging. fu mu nekk nii xale yi suufes. suufes bu ndaw a ndawa a ndaw a ndaw boo xamante ne ne yow soo toogee. maanaam sa léppay feeñ mhm. tey démb ndekete man ba may wax ay nañ jënd ay petit bateau ndeysaan nañ jënd ay ay jiitalu coton mhm. silibu coton yu mag yu yaatu yi nga xam ne dina tax suñu doom yi ëmb seen lépp ah ba ñuy wax sax ay yi nga xam ne loolu la ñuy jënd ndekete léegi xale yi kenn jiitalatul sax faf ah, li ma la wax fii démb ndekete xale yi kenn jiitalatul démb lan laa la wax waaw mu nekk lu nee naa la ñii daan jaay ñii daan jaay njiital ñëpp waaye na yaay yi jënd na yaay yi jënd jiitali di leen duñ ko sol. jënd ay soutien duñ ko sol. taa dégg mm. yaay est-ce que bu la seytaanee ba nga dem wutali sa bopp jiin wutali sa bopp oh, est-ce que mën naa lijjanti la nga jiital ca biir. da nga jëndal sa bopp. waaw sànq danga nga wax lu am solo nga ne xale yi bu ñu toogee léegi bu ñu jógee dañuy xeeñ beneen bi si gën a garaaw mooy ñoom nañu yërëm seen bopp xam ne dafa am ay feebar yoo xamante ne bu la dalee yow jéeg bii sëy sax da nga war a daw gaaw dem seeti sa bopp waxuma laa xale bu ndaw ndax yooyu dafay des di gëmm di nelaw nga yaakaar ne wér na fekk ne wérul xam nga nag NST bi nga ko tàmbalee bi nga ne NST note sexuellement dama ne la NST MST mooy ndeyam mm-hmm. foo amee note sexuellement transmissible bul bañ a am maladie sexuellement transmissible da nga ciy gis yenn xale yoo xamante ne nanguñ duñ ñemee jiital parce que dañuy dem ba perte yu jaunâtre yooyu ñuy am mm-hmm. moom la ñuy bañ a gis dëgg la te nañ koy gis pour mën a teel a faj seen bopp. gis nga moo tax ma ne la même gis nga cours éducation neexul ndoy baan neex na. Mhm. cours éducation sexuelle yi nga xamante ne ni que ñu war nañ ko su suñ ko initié wul woon su fi nekkoon war nañ ko gën a renforcer xam nga lu tax. Mhm. ndax euh, da nga ciy gis ay notes sexuellement transmissibles yi ñu leen di jox. Mhm. yuy jur maladie sexuellement transmissible yoo xam ne dina dem ba jug ay jàngoro yu bëri. parce que non seulement chaîne la non seulement xale bi. dina am maladie sexuellement transmissible boo xam ne moom moo ko jox professeur wala professeur moo ko jox jàngalekat bi yaa ngi dégg wala nga gis ca école primaire ba xale boo xamante ne CE1 dong lay def commencé de ay infection gis nañ ko fa mm-hmm. parce que ki nga xamante ne moo koy baleeloo nañu ma jéggal mooy ñëw di jël di jël ay baaraam ay ay ay baaraamam di ko ko def noo xamante ne xale ba ak baaraam yi ni muy tilimee da ngay gis xale bu ndaw am am maladie sexuellement transmissible ak infection allo ah. allo waaw maa ngi fi ça maa ngi rafetlu émission bi. merci beaucoup. allo. allo waaw maa ngi lay dégg. fooy wootee. maa ngi wootee Thiaroye. Thiaroye waaw ñu ngi lay déglu. est que élève la. émission bi maa ngi koy rafetlu fan yëpp nag maa ngi a dugg mënuma. élève nga élève nga. élève ba naa jàng bu lu tax nga bàyyi noonu. ah waaw lu tax loolu. ah dara. <coughs> yow ban classe nga yem. maa ngi rafetlu thème bi. waaw. waa diggante si meer. waaw nga def ma fi ma ne jamono ja nga xam ne danga doon jàng yow ba ba fan nga jàng primaire nga yem wala dem nga ba secondaire. man eh, franco arabe laa doon jàng. ah waaye démb am na kenn ku fi wootee ne franco arabe ba de directeur ba ci jëm boppam. loolu dafa dafa doon sama la ko dalee. ni ngeen wax noonu. Hmm. kooku seen prof bi dina def test. Mm-hmm. après laaj ko kay mën ko jël si ko. Mm-hmm. léegi xam nga kooku rek xale la xam nga dara ma ko mu wóonee dinaa ko jël si. c'est mm-hmm. que prof bi da ko tëboon dorogé ba gone gi dafay jëlee ëmb. mu ko fu mu ko dorogee këram. ah waaw. Mm, daf ko wax jël si kaye bi foofu. Hmm? daf ko professeur bu franco arabe ba dafa ne xale bi mu jël si kaye euh, ba ca këram. waaw si kay si këram. ba mu ñëwee mu dogooge ko xale bi dem ko mm-hmm. mu ne ko ko sama kër. Mm-hmm. léegi xale bi dem ba mu demee dëgg moom mu ne ko ñaan ko ndox. Mm-hmm. ba mu ko na ko def na si si lim koy def. xale bu naan. ndox de wagut a saf dara enquête jàpp waaj. ma ne ko ndox de wagut a saf dara. jàpp nañ kay. waaw prof bi jàpp nañ ko. Uh-huh. ma ngay jàngale ba léegi wala loo ci dégga jàngalewul de instant yi nii instant yi dañu koo tëj. xam mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. naa ne xale ba pare moom instant moom yàq na jàngam. xam naa ne parents yi dañoo am fula am seetlu. waaye lépp rek parents yi nag nga gis sa doom bi jàng sol lu gàtt gàtt génn romb la. ma instant bii lu fa naa sax sol lu gàtt. fekk man sama ngor moom mi ma sol lu gàtt génn romb ay kilifa. am naa fekk dañ ma ko yaree wu. dañ ma ko yaree. maa mhm. émission kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax foo fooy fooy wootee nii. caaroy caaroy lay woote caaroy ndeysaan maa ngi ko bëggoon may jugu <laughs> mhm. gis nga modd bi rey nañu. Mhm. Euh, balaa boobu paketu modd bi. parce que lu ci bëri euh, xale yi dañuy am ñaari yére nag. xale yi hmm. seen saak yi hmm. ñu am ñaari yére seen saak yi ci la seen àdduna bi yëpp nekk waaw parce que yére bi nga xam ne moom ngay rombee sa yaay mu hmm. toog ci diggu kër ga di tànn ceeb am na ci ay yaay yoo xam ne ndeysaan yoruñu demuñ dikkuñu seen éducation njaboot rek a leen soxal waaye xale yi téye leen léegi moo doy waar muy aju ko góor ki muy aju bu jigéen ndax seen bëgg-bëgg dafa rëy doo ko yor ñu nangu koo uti ndax complexe nañu dem ca école ba gis doomu mami di sol loo xamante ne wala boo euh, sama xarit bi di sol loo xam ne solo ma ko mhm. kon lu nuñ ko amee baax na wala kat da ngay gis kenn koo xamante ne ku mel ni mami su ñëwee di dóor dàll yu baax yu marque comme dañu mhm. bëgg affaire marque cheveux yeeg yooyu yëpp nga xëy suba ne ay yow doo ma may ay yow dimbali ma may ma cheveux mu ne ii soo bëggee yow nga ñëw ma may la sama paa bi am na benn xaritam mhm. paa yooyu nga xam ne ñoom ñooy rang ci buntu école yi mhm. bëri na ci ñoo xamante ne ci buntu école yi la ñuy rang dañuy jël xale yi de plus en plus jeune su ko defee yow nga xamante ne ne sa yaay mu ngi la toogloo woon doylu ca ya nga yor yor sa blouse ñu xëy suba mu xamal la ni soo bëggee mel ni ma mel sama paa bi nañu ànd mu may la beneen xaritam nga dugg ci circuit bi majeure partie xale yi noonu mu am beneen facteur boo xamante ne sànq maa ngi koy wax mode bi rey nañu mode bi rey nañu ndax lii xamante ne moo di num lëgin lëgin yi léeg-léeg da ngay xale bu sol lëgin da ngay defee yaramu neen la def surtout su fekkee lëgin bi dafa marron xale bi daf koy sol yow di nga dem ba jege ko di ci ngay doog xam ne du yaramam ndekete yoo légin bi xew yooyu dem nañ ko ba léegi góor ñi dañuy sol léegi seen awra yëpp mu téye mu téye ko uh-huh, uh-huh. dañu dem ba nga xam ne mode bi ñu xam ne aussi am na lu ñu wax fashion xaw ma soo toppee mode bi sax soo toppee mode bi uh-huh. di ngay gis ñu ci bëri ci créateur de mode yi dëgg la ñoom seen dëkk du dara mais ñu ci bëri Euh, ay góoru ñaari tur yi lañu. Uh-huh. ñoo xamante ne ñoom li ñuy créer c'est par rapport ak uh-huh. moddu. Uh-huh. ñoom seen seen seen seen li ñu bëgg. donc suñu doom yi jël ko nii di ko exporté clip yi rey nañ ñu. clip yi parce que dañu dem ba nga xam ne jëlal ko ci ligne bi. allo. waaw. waaw soxna si noo def. maa ngi si oui ça ñu ngi sant bu baax. mami namu naa la nuyu naa la. maa ngi lay fay lu bëree bëri soxna su baax si. maa ngi lay sargal bu baax a baax. mais Fatou Diallo nag yow doomu juróom juróom ko moom doomu de. bàyyi ko rek waaw. bàyyi seex nen de ku bëgg dangay jaar ci moom. <coughs> man rang naa de rang naa de man yaay sama maman. <coughs> ah ba yow léegi léegi nag fu mu ne nii dangay ñëw fii laaj seex ndax bëgg na. da leen di napp rek. bàyyi Serigne Touba dama naa la lu ko raw barke Cheikhul Khadim. <coughs> mais mais bi ngeen wax nii. Ah, ah. dafa am sama benn xale bu ko dund comme ni nga doon mm-hmm. moom dañ daan ànd ak jàngi mais xale bi suñuy jàngi mm-hmm. day day jël ñaari yére. Mhm. benn bi da koy dugal ci saag bi. baax na mais beneen bi muy buy génn beneen bi muy sol. Mhm. da koy sol léegi man sama yaay day jaay ci école bi. Mhm. ak crème ak yooyu mais sama yaay dafay seetlu bu may jël ci moom yére olof lay sol. mais buy buy jàng si sama yaay dafay seetlu mu sol suufee. ñaari yoon sama yaay dafay seetlu ñaari yoon. sama yaay woo ma. ne ma. li ñuy sol man heure boo ko gisee su ñëwee ci day sol yëre ol. Mhm. mais bu ma ko fekkee école day sol ay lii ma ne ko yaay de kii ñaari yëre lay sol. Mhm. nga trop sama yaay ñaari yoon laa ànd ak moom mu def waaye sama yaay dafa ma jàpp daf ma dóor dóor yoo xam ne. parce que ñii bu ànd ak moom. ndax noo noo ànd kuy mhm. ma yaay kontaan naa moom. yàpp ma a dee jour laa gëj a moom ba ñu ma jàngee ba am sama mbéy ba dem sëy yi. walaay ñu sëy sama kër. foo nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi Dakar. waaw maa ngi Fass Mbao. waaw soo paree bul quitté ma may la juróomi junni. waaw kay jërëjëf ndax dóor yi la sa yaay dóoroon rek dama cee kontaan. ndaam ndaampaay ndaampaay. bëgg naa la waaye su ma sañoon am sa léegi nii Mia dina la jël. ñu jox la sa juróomi junni ba pare jox la sama numéro. nga SMS ma nga ne ma sa doom bi nekk Fass Mbao. biñ dóoroon dóor yi. waaw biñ dóoroon dóor yi dégg nga SMS <laughs> rek laa bëgg mais bu bëgg SMS laa <laughs> ndax doom bi yee baaxul. xam nga lii uh-huh. nii uh-huh. Euh, ñu ngi de waaj a def plateau fin uh-huh. mais euh, dóor yooyu mooy indi jubbanti bi ren am sax man ku mel ni man xam nga ni doo dóor waaye dafa am sànq kenn ku téléphoné euh, fenn di wax rus rus na maa war ma naa xam nga jomb jomb na xam nga loo xamante ne soo gisatul papa yaay sax rus ba ak jomb ba da cee des ba léegi mhm. kon culte boobu nañ ko def ci suñuy doom mhm. te weesul gis nga fii ñu toog nii am nga doom yow mi ñuy seetaan doom boo xam ne xëy na mu ngi déwén lay dem primaire déwén lay dem lycée mhm. wala ku nekk lycée wala ku nekk CM2 jàppal euh, à partir de lii nga dégg nga organiser forum de discussion boo xamante ne di nga déglu bu baax a baax sa doom mhm. te doom soo koy déglu doo ko tiital soo ko tiitalee du wax da koy mett ak waa ma ne ki nga ëmb jur ko xanaa war nga xam foo koy jaar ba wax ak moom mhm. kon ñun ñi yaay lan la ñu lott ci wax ak suñ doom te ñoo war a loolu tamit defe naa ni dañuy dem ba suba ma ci bëggoon a jof ba la dem ba suba ne modd la modd la comme ni ko Ndoye waxee fashion dafa xew dafa xew mais yow comme ki créé modd bi yow miy bàyyi doom ji nawloo woo ko jamono ja mm. a xéttal sa doom mu di ko sol ndax ñoom seenu tànnin rek la ñuy facilité pour gën a a tànn ci suñu xale yi yaakaar naa ki la yéene dee nag moom loo yooyu mu xeeb kon loolu nañ ci bàyyi xel di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne ba suba jàmm kenn gënu leen sañatumaa gërëm kenn nag ndax yéen ñëpp a ma bëgg xam naa loolu di gërëm nag daba njaay bu baax moom mi nga xamante ne moo jaar fii di nuyu ay sama gaay yooyu <laughs> jaajëf gis nga taa dégg modd yi ngay wax nii. Mm. moo yàq réew mi. moo nara yàq sunu doom yi ak mm. sunu jarbaat am na ñoo xam ne dañoo jël seeni doom par exemple utal leen sécurité. école yi baax. lañ leen dugal. xam nañ seen doom yi lu ñuy def ak lu dul lu dul def. ah. Mm-hmm. ba pare su su nit ñi toogee par exemple di wax li nga xam ne moo xew ci réew mi ak ñi ko dund toog di wax mm-hmm. yow peut-être xamoo ou bien sa xam-xam ou bien sa bët eggul. ci ci ci ci fi fa gomba fa gomba egg mais lii ñuy wax ci ci dëkk bi su dëkk bi suñ ci jógul du baax parce que yaa ngi wax sànq affaire prostitution élèves yi ñoo jàng nañ xam ne lan mooy prostitution nga dem ci nit ki mu séq ak yow relation sexuelle jox la xaalis xaalis ba mu lay jox maanaam dalaa fay loolu mooy prostitution te ñi koy def am ñoo ñu ñooñu nëbbuñu seen bopp ñi ngi ci tali bi mais élève boo xam ne yow am nga faru jaaykatu fëgg jaay yi génne ci bal yi bees yi am faru taximaan am faru pa am faru professeur ak censeur ak directeur ak yooyu not bu nekk nga am ko yow kooku loo doon <laughs> lan nga doon ba suba ak jàmm waa jëb daal ñi ngi leen di ziar bu baax a baax ak madame euh, kii nu mu tuddati euh, Aïda Wage ñu ngi koy ziar bu baax waaw kooku sama ah, xarit la ah, ah, madame Diop la voilà noga yi sekk kii mm. moom sama benn xarit la bu nekk Pire parcelle mm. quartier bu ñuy wax parcelle ci Pire mm. noga yi sekk ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaw waaw ak seen waa kër ñëpp ndeysaan ndeysaan mm-hmm. macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax jërëjëf inspecteur Sodou Boy nee na sama jaam bu buur boobu nee na dëgg <laughs> loolu la wax nee na dëgg dëgg di bàyyi xel sama doom tabu aw onglerie bu baax a baax ya yàlli ah toodo boobu ñu ngi koy sargal bu baax a baax waaye kenn du nadduraa ñu ngi koy nuyu ah donc waaye balaa ñuy dem fenn dañuy àndaat euh, ziyaarat kilifa diine ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi mhm. ah di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne na yàlla ñoo di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di remercier bu baax a tax Ndeye Thioro Fall ah, ah yaayu alu ñu ngi koy sargal bu baax a baax ak sama yaay Fandiaye Marie Nguer ma nekk ca Ndar di nuyu bu baax a baax tamit Tane Diagne jour ji mi nga xam ne moo génn ci soir yi baax na baax na fi mu génn dafa garaaw waaw waaw madame Aïdara di leen remercier bu baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan ci diaspora bi ñu ngi lay jox cër te ngeen xam ne lu fi jub rek suñu borom bee ko jubal mhm. lu mel ni du di ay doomu aadama lañu suñu sañoon ngeen dégloo ñu xel bu baax a baax a baax te doo leen ñu dégloo xol dëgg dëgg dëgg kenn gënu leen yéen a baax kon ba subaam jàmm incha allah jërë ngeen jëf